ba tey ñu ngi woon ci ubbite gu yaatu gi nga xam ne moom la sëriñ bi def ci njëlbeenu téere bi te mu doon ci wax lu bari ci wàllu xam-xam ak jëfe xam-xam ak seen njariñ waxitam ci julit bi nu mu war a góorgóorloo ba waxtoom mu di def ci lu ko amal njariñ tey ak ëllëg ci biir loolu mu doon wax di won ay mbir yoo xam ne boo ci jàppee di ko jëfandikoo dana la jariñ tay jariñ la ëllëg tuddoon na ci yu bari ba yegg si ci jàng alquranul karim mu war a doon juróom-ñaareelu mbir wala juróom-ñetteelu mbir ci yim doon tudd gannaaw boo xam ne tudd na naafilay julli yi tudd naafilay koor tudd wird tuddoon itam tudd yàlla ak xalaat sunu borom tabaraka wa taala tuddoon itam sarxe ak jokkuk bokk ak joxe ci yoonu yàlla te mu ñëw ci jàng alquranul karim alquranul karim ñun ñëpp ni ñu ko xamee muy téere bu màgg boo xam ne mooy waxji sunu borom tabaraka wa taala mujj a wax ak jaam ñi ci suuf sunu borom ba mu ñu bindee ba léegi jamono ju nekk daana yónni ab yonent wax ak ñun wala mu wax ak waa gox sàngam wala waa jamono sàngam wala waa barab sàngam léeg-léeg jenn jamono mu yónneendoo ay yonent yu wute léeg-léeg mu def ko itam ci benn gox wala mu def ko ci ay gox yu wute waaye mboolem yonent yi jiituwoon yëpp amu ci kenn koo xam ne lañ ko joxoon wax caag waa jamonoom doon na loo xam ne daa war a doon luy wéy ba fàww biñ yegsee ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa nag nga xam ne moom la suñu borom nammu ak yonent jeexe ci moom moo tax moom la jox wax ji nga xam ne da cee wax ak waa jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëm doon dund waaye di ci wax ak waa jamono yi ñëw gannaawam ba kër adduna tukki loolu moo tax suñ boroom tërale alxuraan tëralin wu yéeme woo xam ne ba addunay tukki day wax waa jamono ba fii ñu koy waxee ba jamono ji jii ñu nekk ay boroomi xam-xam a ngi ciy génne ay xam-xam yu yees yu xóot yoo xam ne ña ko ña jiitu woon xamuñ ko woon mënuñ ko ci woon a génne ndax jamono dem ba yeneen xam-xam yokk génne loolu feeñal ko ci ay wet yu bare bare bare bare bare nag yu wute ñu gis ne alquran li ci nekk ci ay tënk ak di wane aw yoon ci aw doxin organiser ni mu organiser dund ni ko doomu aadama war a defee ni ko war a saytoo ak li wax lépp ci li war a dox diggante jaam bi ak boroomam ci aw doxin aku melokaan aku ngëm ak pas-pas ak jaamu ko lépp doon loo xam ne daa mën a wéy di ànd ak jamono ba keroog àdduna tukki te loolu doon doon sëkk firnde ñu xam ko alxuraan bi mu wàcceeg léegi mat na mi ngi toll ci junni at junni at ak ñeenti téeméer ak fanweer ak dara ak fanweer ak ñaar wala yooyu bi alxuraan mujjee wàcceeg léegi maanaam la ca mujj fam yamoon te bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jóge yonent bi alayhi salatu salaam bi mu fi bàyyi koog léegi ren ñu ngi ci mille quatre cent quarante deux ci hijriya mille quatre cent quarante deux ci gàddaay gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu salaam bi mu gàddaay ñëw Madina fukki at la fa def làqu kon boo ci génne fukki at yi mooy ne bi fi yonent bi alayhi salatu salaam jógeeg léegi mi ngi toll ci junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar wala fanweer ak benn jàpp fanweer ak ñaar mooy bi alxuraan mujjee wàcc la ca mujj fa mu yem bi mu jeexee ba fii ñu toll ci at yooyu la toll junni at ak ñeenti téeméer na nga arrière ko ci gannaaw ca gox ba alxuraan doon wàccee barab booba ak environnement ba na meloon ak nit ña nañ meloon ànd ak loolu lépp nga ñëw ba jamono jii nga nekk deux mille nga gis ne saa yoo xamee dara ci alxuraan da ngay gën a xam ne alxuraan ni mu mënee atte jamono ni mu ko mën a saytoo amul lenn lu ni mën a mel amut lenn loolu rek doy na la sëkk kon firnde ci ne ak li fi xew lépp ci diggante bi ci doomu aadama ak xelam yokk gim yokk xam-xamam yokk gim yokk xalaatay xalaatiinam yokk gim yokk xereñ gi ko yàlla may li ci yokk lépp ak li fi am ci ay découverte scientifique ay lu ne am fi lu ne lu ne lu ne ànd ak loolu bari na yu fi jaar ci yu doon jéem a lijjanti àdduna dem nañ ba xam ne echeck nañ mënuñoo lijjanti àdduna dem nañ ba wëlbatiku sax far di wëlbatikuwaat di jëmaat ci alxuraan ngir xam ne moom mën a lijjanti àdduna buñ la doon jox misaal mu gàtt rek mu simple mu woyof xam nañu àdduna si bi mu depuis ay siècle yu baree bari ay système financière yu yu wuute yu bari ci wàllu jaar na fi ay doxiin yu wuute yu bari yuñ xam ñenn ñu nekk am ay xalaatiin ak gisin yuñ am tëral ko ngir jàpp na doxiin yooya moo mën a génne àdduna ci jafe-jafe yi ñuy dund moo mën a tax itam ak mando am moo mën a tax nit ñi jariñu waaye demeef naa dem ba jamono ju mujj ji ci at yu mujj yi yenn borom xam-xam seenu farlu ñu génne système bi lislaam andi moom bi mu wanee bi alxuraan jàngale ñu génn ko wan ko adduna bañ gis ko ba adduna sépp wëlbati dëgg waa xam ne ndekete solution bi dëgg moom lislaam ko andi maanaam alxuraan moo ko yore moo yor solution bi nga xam ne ci la nit ñi mën a jaar ba tax ak adduna am jàmm mën a am te mooy li ñu tuddee finance islamique finance islamique du lu bees du bees du xam-xam bu bees naka jekk mi ngi woon ci téere yi base yu mag yii yëpp mi ngi ci alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téere fiq yi borom xam-xam yi yàgg nañ koo bind ñii fi jaar jàng fiq ñëpp jàng nañ ko lu ca amaat luy niru lu yees weesuwul borom xam-xam yi jamononteeg jamonoy tey di gën di yaatal di gën di xóotal ak yenn concept yeeg yenn mbir yi xaj na ñu am ci yuñ soppi mu ndax jamono moom day laaj lu mel noon rek waaye lii mbir mi dëgg-dëgg lépp moom mi ngi woon ci téere fiq yi ñu di ko jàng boo demee ci buntu bi ñu tudde buntu bu yoo ak la ci aju muy li at wax ci wàllu njaay ak jëflantiinu alal ci téere fiq yi mag ñi doon ko jàng jàngal ko ay njaboot ak donga loola rekk la ci gàttal du la neen du xam-xam bu bees mi ngi foon naka jekk mos fee jóg mi ngi ci téere yu màggat yi ñu jàng yëpp mi ngi ci waaye li ci nekk mooy adduna xamu xamugu ko woon ba xam na ndekete mbir mi nii la amee solo kon loolu rek rek rek doy na sëkk ci nga xam ne alxuraan kon yàlla def koo bind noo xam ne luy wéy la loo xam ne day mën a àtte jamono yëpp ba addunay tukki te moo ne ni mu amee ci finance islamique ñi yëngu ci wàllu économie ak finance gëstu ba gis loolu wëlbatiku daw jëm ci ay réew yu du réew yu jullit sax di jéem a jël système boobu jëm koo jëfandikoo ngir xam ne njariñ da cee nekk réew yoo xam ne sax duñu ay jullit ak réew yoo xam ne sax xaj na ay réew jullit lañ waaye ci état bi ni mu doxee lu mel ne suñ réew mi nee nañ ay layeg lañ du tee danañ ko jël ngir bëgg koo jëfandikoo te moo ne ni mu amee ci wàllu googu ci wàllu finance noonu la amee ci domaine yi des yëpp am na li aj ci wàllu droit ak mandu teg doxiinu atte buñ ca demoon ca la gën a rawee waaye la ca nekk mooy xaj na am na ay nit ñu yaa ñu yàq deru lislaam deru alquran ba ñaawal ko ci boppi nit ñi gëm loolu leen leen ne diina la joo xam ne daal daa soxor day daggi loxo day rey nit day def nangam day def nangam te fekk yooyu yëpp leeraluñ nit ñi nan la ko lislaam andee lu tax mu andi ko ak nan la ko andee ak nan lañ koy appliqué loolu ay ay ay principe la yu ñu wax waaye balaan caa lay tax ñu yegg ca du yomb te buñ la waxee fa mi ba yegg ca nga xam ne buñ ca yeggee moom loola rek ma war a am loolu rek ma war ndax lu dul moom bu amee itam ak yàqu rek lay jur waaye luñ ko nit ñi loolu xaj na yàlla dana def tawféex ba jamono dana ma sa dikki ba euh, juriste yeeg ñi yëngu ci wàllu droit dem ba xam ne ndekete itam ni nga xamee ne l'islam daal moo yoroon solution bi ci wàllu finance ak moo ko yor itam ci wàllu gee itam ñu dëgmal ko loolu lépp nag kon day wane alxuraan li ko li ci yàlla def da koy wane wane ne alxuraan téere la boo xam ne lépp a ci daje luy defar nit ki ruuxam di defar diggam ak boroomam luy defar addunaam lépp a ci ne defar addunaam defar alaxiraam lu nekk dal daja na ci biir boo ci demee da ci fekk ay qissa yu suñu borom di nettali ci yonent yi jaat yi jiitoon yonent bi sallallahu di ci nettali ay xeet ak aw nit ay civilisation yu fi jaaroon yu yàgg ak ay nation yu yàgg yu fi jaaroon ak seenu dox yi nag la xew ci ñoom nett leen lu bare bare daal dajale ci biir alxuraan alxuraan jooju nag sëriñ bi wax ne jàng ko ndax ni mu baree njariñ ci jëfe gi jëmmi jàng gi rek daa am njariñ yu kenn mënta lim alxuraan jëfe gi te xam li ci ne nga jël ko di ko jëfandikoo di ko pratiquer li ci nekk ci njariñ ak ni mënee xett li nit àdduna ak alaxira jëmmi jàng gi rek itam daa am loolu jàng gi loolu nag lu doy war la mbind moo xam ne jàng gi rek rek rek jàng gi rek yàlla daf cay def barke def ci baatin def ci secret boo xam ne day defar nit tey defar ëllëg day defar nit tey defar ko ëllëg jëmmi njàng mi rek bu ko nit ki dee saxal te di ko defee ko war a dana bari lol lum soppi ci moom dana bari lol lum dindi ci moom ci ay ayib lool sëriñ bi wax ne kon njariñi jàng alquran lenn ci borom xam-xam yi soññee nañ ci ba tàyyi wala borom xam yëpp sax soññee nañ ci ba tàyyi ngir bëgg nit ñi mën a jariñoo li ci nekk tax ñu leen soñ jàng alquran ba am na sax ci borom xam-xam yi ko wax ne képp koo xam ne daal bëgg ngaa jege yàlla sa del farlu ci di jàng alquran te bañ koo bàyyi del farlu ci di jàng alquran karim te bañ koo bàyyi moom sëriñ bi mu teg ci ne man maa ngi wax itam di ci dolli ne am na sax lu gën a kawe ndax jege yàlla dëgg la kawe na lool waaye am na lu gën a kawe ta mooy am ngërëmul yàlla ndax alxuraan moo wax ne ngërëmul yàlla moo gën a kawe lépp mu ne man sëriñ bi nag maa ngi wax ne képp ku bëgg am ngërëmul yàlla na ngay saxal ci di jàng alxuraan te di ko setantal na nga ci sax na nga sax ci di jàng alxuraan di ko setantal kon waxut na nga ko def benn yoon ñaar ñett ñeent ba waaye na nga ko saxoo sa giirub dund la wax te di ko defee sa kem kàttan na nga ko mën a tam sax sax gi mooy di jëpp solo dana ñëw léegi ci kanam ci bariwaayum njàng ak néewaayum njàng ak la ca aju ak borom xam-xam yi ñu ci wax mu daan ne kon maa ngi lay digal itam na nga saxal di jàng téere bii di alquran téere bu mag bii bis bu set na nga koy jàng wala bis bu set na nga ciy jàng dara sa kem kàttan la nga man doonte ne ñetti isib la sax loolu nag bu ko sëriñ bi wax day day day joxe rek ab ab ab misaal waaye jubluwut a wane ne gën gaa néew na nga jàng ñetti isib ndax ñetti isib am na kum tuuti ci moom waaye am na kum bari ci moom am na kum ëpp ci moom sax am na ko xam ne ñetti isib ëpp na ci moom munu ko jàng ci bis wala bu ko dee jàng euh, dana jël ci moom waxtu xam ne dana metti ci moom loolu mu saxal ko kon daa jubloo wane rek ab dayoo waaye jubluwut wax ne a tënk la boo xam ne da nga ciy tënku faw nga jàng ñetti isib gën gaa néew bis bu sat déedéet déedéet jubluwut a wax loolu ndax gis nañ ci al yurdul maxuus boobu nga xam ne moom la ko boromam jox mu jaar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy wax ci sart ya am na fu ñu ko koy laaje ba mu cay tontu daa wax ne jàngal alxuraan bi set ci la bokk ci sart waaye du tënkeesu ko tënkeesu ko nit ki mooy seet lu man mu jàng kon loolu moo lay fiir laatal ne la bu ne laa doonte na ñetti isib itam daa am fu muy waxee rek waaye jubluwuta wa ne tënk bi mooy gën gaa néew faw da war a jàng ñetti isib ni ñaan ñenn ñu bëgg a firee jublu tax loolu waaye jàng alxuraan moom euh, na ko alxuraan waxe woon rek moom euh, dee leen jàngale jàppandi ci yéen dee leen jàngale jàppandi ndax li jàppandi ci kii jàppandiwut ca kee li jàppandi kee kee am na koo xam ne ñetti isib tuuti na ci moom ba ëpp am na koo xam ne ñetti isib daa bari ci moom am na koo xam sax ëpp ci moom am na koo xam ne bu ñu koy digal dañ naan ko bi set del faxe ba saxoo jàng bi set ab sumun wala ab robo wala del jàng sa benn page ndax loola rek moom bu ko saxalee mu baax ci moom te xaj na lu ko ëpp du yomb ci moom kon li am solo mooy nit ki lim saxal ta sellal ko ak lum tuut tuut baax na ak lum tuut tuut tuut li ma ta moytu daal mooy man munumaa ja loolu ndax day dal ñu bari ci nit ñi man munumaa jàngal alxuraan lu bari wala mënuma koo jànge nangam ak nangam kon dama koy far baax loolu moom musiba la ndax lang ca man lum tuut tuut lum néew néew néew néew new nga man ko di ko saxal xaajutayam du ma ne sax moo gën waaye daa xaajutayam ak nga di ko bañ a def xaaj ñooyam tey nañ fàttaliku ne yonent bi alayhi salatu wasalaam waxoon na lu lu yéeme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne alquran de ki yàlla may tawfiq ba mu ba mu man ko xereñe ko man koo jàng-njàng mu wér mu mucc ayib bu ëllëgee yama xiyaam ma ngay ànd ak gaa yu baax yu tedd ya ca seeni wàccuwaay tey ca ñooñ ca lañ koy boole daal na waaye ki nga xam ne itam yàlla dogal na man manam yëggul foofu nga xam ne buy jàngal xuraan daf koy jàng di ijjëkk a boole mu metti ci moom lool jafe waaye mu ijjëkk a boole ba mën a jàng dara mun ne kooka itam ñaari tuyaaba lay am te mooy tuyaabay jàng gi mu jàng ak tuyaabay coono bi mu ci jànkonteel ngir jàng kon loolu day wane ne nit ki dara wuur ta tax mu ne kon naa ko far ba ijjëg boole gi ngay def bu mu la tax a taayal nga ne da nga koy ba waaye dee ko def te seet loo mën a saxoo ijjëg ka boole nga def saxoo ijjëg ka boole di ko def bis set loolu rek yu wuree la mu ne kon bis bu set daal na nga saxal ci di ko jàng te bañ koo gàddaay gàddaay alxuraan moytu ko gàddaay alxuraan nag mooy koo xam ne moom nga jàng alxuraan bokku ci programme bokku ci amul benn bis bu muy ubbi alxuraan jàng ko bokku ci bokku ci programme gàddaay alxuraan am na ci jullit ñi ñoo xam ne yàlla nattoo na leen ko wala bakkan bokk nattoo na leen ñu gàddaay alxuraan boo leen laajoon kañ lañ gëj ubbi ab kaamil wala téere alxuraan jàng ko buñ la waxee doo xam kañ lay doon ci mu ne loolu nag na nga ko moytu wax ci lu doy waar daan na gàddaay alxuraan googu nag am na melokaan la woo xam ne wala aada la joj ñaari xeet ci nit ñi aada woo nañ ko waaye ñoom ñaar ñëpp la nekk du yoon ñenn ñi mooy jàngkati xam-xam yi jàngkat yi ñu toll jàng xam-xam ñu bari ci ñoom di wut xam-xam nekk ci téere di luñ ñu toog a gëstu waxtu wu nekk lu bari ñaare dana leen di yóbbu ci ñu far mujj fàtte duñ ko def ndax seen temps bépp ca téere yaag yooyu lañ koy def ak gëstu ba ba mujj far jàngal xam dootu ci xaj ñu fàtte ko te loolu lu wér a wér a wér la xamees na ko bu wër ci ne ñu bari ci jàngkat yi ñaare dangay doon gone ñu yóbbu la ca daara da nga jàngal xuraan ci sa at yu néew nga jàng ko ba mokkal ko jógee fa continuer dem di jàngi xam-xam ba yegg ci ay daay kawe kawe waaye lu bari léeg-léeg ñaare yoon woowu ci diir bi nga nekk di jàng xam-xam xaw gaa gannaawal njàngum alquran ca ngay mujj jaar ba fëtt alquran far ca ngay mujj jaar ba fëtt alquran far alias billah moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la waajur yi war nañu ci taxaw seeni njaboot ndax léeg-léeg gone gi fi mu toll ci ndaw xamut dëgg-dëgg li mu war a def ak li ko mën a li ko mën a indi ëllëg moo tax yow waajur yi yaa ci war taxaw ci sa doom ji nga góorgóorlu ba yóbbu ko mu jàng alquran ba mokkal ko gannaaw bu mu jógee fa nga yóbbu ko ci jàngukaayu xam-xam yi muy jàngi xam-xam moo xam ca majalis ba la wala ca école ba wala fu mën a doon farlul ci di ko wutal waxtu woo xam ne ci bis bi saa yu jotee lu mën a xew dana nafar te di ko wutal ay somme yu dëgër nag yoo xam ne moom lay nafare te bañ ko bàyyi ci coobare ba kanam mu naan day nafar bi set ay ñetti isib ak yooyu loolu moom bu ko ba wut ci yoonu fët lay aw daan lay jëm daanaka waaye nay wut ay dog yu dëgër yoo xam ne bi set di ko nafaral alxuraan ndax alxuraan am mën a des ndax bu loolu alxuraan moom daa gaaw a rëcc loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko waxoon ne dane giléem guñ guñ yeew ci barab noonu mu naan bëral sa rek jóg dem alxuraan ak gën a gaaw a rëcc loolu moom dangay jàpp tëba ba mu dem yaram waaye du toggi xar kenn moom kon mu ne benn muy jànkati xam-xam yi loolu aada ci ñoom adala ju doy war nak jo xamne jaadu wuton ci ñom ndax lañuy wuti day mel ne du lenn lu may dañ leen jox dañ leena jox ab jumtu am mbir ñu wara wut jumtu kay yu mëna tax ñu man ko xam man ko jëfé bañu wuti wuti kay ñu doxé ci mujj far fàtte yefi ba far sànni lolu musiba la mel kon li tax ko wala xamoko mune banen bi itam moy ñenn ci ñi nga xam ne dañuy woote woo ak soobu yoonu gaa yi yàlla ya di woote woo ak sufiyanke wu ak di woote woo ak soobu mu ne ñenn ci ñoom itam loolu seen melokaan la ndax lu leen ko yóbbe mooy dañu jàpp ne wird yeñ yor ak tur yàlla yeñ yor di ko jëfandikoo moo gën a kawe alxuraan ji loolu la wax ñu itam ñoo xam ne ñoom it aada jooju leen dal ndax dañuy jàpp ne tur yàlla yeñ yor ak werd ya wala bu doon ci murid gi nga ne xasida ya njor moo gën a kawe alxuraan ji loolu comme niñ koy déggee léeg-léeg lu bari sëriñ bi daal leen di tontu ñoom ñëpp daan na ñooñu ñëpp nag li ñu wax dara wéru ci li ñu wax du lu wér te li ñu nekkit ak neen rek la te dañoo waru iblis mu bon mi rek leen war iblis day war nit ci lépp daanaka iblis rek leen war loo mën a jàpp ci mboolem lu ñuy tudd yàlla ak lu mu mën a doon tolloowut ak alxuraan waxum laa di gën nekk loolu da mënut a nekk alxuraan lenn lu ñuy tudd lu tolloog moom daa amut waxum laa di gën loolu amut amut mënut nekk ñàkk xam ak réer dong moo koy yóbbee nit waaye nit mënut xam li xew ba noppi di jàpp loolu te sëriñ bi moo tontul boppam tontu bii loolu nag danañ ci waxaale ne kon képp kuy taalibe Sëriñ Tuubaa moom. boo déggee li sëriñ bu wax te ci Masaalikul Jinaan la ko wax muy lu leer ñëpp jàng ko amutoo lay boo fi bëggee di yëkkati genn xasida di ko teg ci kaw alxuraan li ngay wax sa waxi waaye waxi Sëriñ Tuubaa doona ngay wax sa waxi bopp la waaye du waxi Sëriñ li ngay def it si bopp la waaye yoonu Sëriñ Tuubaa nekku ci te boo jàppee ne yaa ngi ci am ngërëmul sëñ bi da ngay nax sa bopp waaye doo ko ci ndax ngërëmul sëñ bi mënoo ko amee ci lu may yoon wi mu tëral dong ci nga ko mën a amee te Sëriñ Tuubaa moom yoon wi mu tëral leer alxuraan yi jiitu ci lépp lu ñu mën di tudde yàlla ak lu ñu mën di jàng lu mën a doon bu ñàppee nag doog caa teg leneen duñ cee waaye xeeti wax yi ñuy faral di dégg lu bare bare bari ay nit di ko wax seytaane rek la waaye dara du ci dëgg dara du ci lu wér am ñoo xam da ngay dem dem ba dégg sax ñoo naan la naan la maanaam euh, xawma nañ koy waxee maanaam wan leen na la daal xasiida yi dañ koo segge ci alxuraan dëgg la loolu lu wér la moom loolu lu wér a wér a la xaside yi alxuraan am seggit la ci waxin la maanaam mooy lépp ci alxuraan lañ ko ball lool lépp ci la jóge loolu amul sik sàkk ci ko xam dara xam ne loolu moom mooy lu wér waaye bu taxee nga ne léegi lañ ko jëlee moom man lii laa lii daal maanaam dugub la dañ ko jël euh, soq ko ba lay ko ba foof ko ba nangam li ci des ab coxla dama koy sànni lii lay jël déedéet demewut noonu loolu moom demewut noonu alxuraan ñun daal tënk bi sax dafa gën a gàtt loolu lépp tënk bi mooy sëñ bi bu waxutoon lii da koo jëfoon ñu ko da koo jëfoon yar ci ay nit ñu xam leen ay njabooti boppam ñu xam leen ci loolu loolu di wéy ba suñu jamonoy tey jii keneen ko indi la dañu xam ne jëliwoo ko Sëñ Tuubaa moom ak foo ko mën a foo ko mën a waxee nag waaye jëliwoo ko Sëñ ndax moom lañ xamoon ci moom mooy fonk jàng alquran ci dayo boo xam ne mësuñoo xam nit ku mel noonu ci fonk jàng alquran yegg ci wut ay nit ñoo xam ne ay nit ñoo xam ne dañ leen da leen di jàngaloo alquran bis bu set dina wàcculooy kaamil te muy lu mu yàgg a def loolu ñoo ñuy tuddee daaray kaamil nga xam ne boo demee Touba ba léegi danga nga ko fekk ca jumaa ja ci saal bi jàkkaarloog barabu ku tedd ki da nga fi fekk saal boobu daaray kaamil lañ koy tuddee ab li fa nekk ci aw nit ñoo xam ne bis bu set dañuy xëy si di gont daan jàng ñaari kaamil ci gannaaw jullit suba daan jàng ab benn kaamil gannaaw jullit tisbaar daan jàng benn kaamil gannaaw jullit takkusaan guddi ga juma ñu jàng juróom-ñaari kaamil dolli ci boo ko tënkee mooy ne bis bu set daan jàng juróomi kaamil sëñ ma la mu jóg daga na ne dafa mel ne boo ko xoolee sëñ bi dafa mel ne daa jublu waxtu julli wu nekk ñu boole kooku kaamil ñu boole kooku kaamil te loolu ba ko Sëñ ba mu koy tàmbali def boobu demagut ci géej gi ñu war dañoo jàpp ne bi mu ñëwee njaareem la déedéet yàgg na ba mu koy def tàmbali def boobu demagut ci géej gi ba mu koy tàmbali def fu mu mas a nekk loolu loolu dafay am ba ni mu ñëwee njaareem nag foofu la gën a fese moom nit ñi gën koo xam ndax moo mujj ba mu nekk gànnaar noonu ba mu nekk Mauritanie da ko fonkoon fonk gu yegg ci sart yi mu tegoon ca ña fay dem sax da ko cee boole woon danoon maam Cerno ku fi fekk na deg ku mokkal alxuraan koo xam ne waxtu wu nekk bu ñu waree jàngal alxuraan moom dana ko mën a tari noonu ci lu mu di xool bopp ko te man liggéey liggéey loxoy góor yi itam sart yooyu la tënkoon jox ko maam na ba kuy ñëw ku jaar ci jaar si ci maam fi mu ne moo lay natt sart yooyu bu dajewut ci yow da ngay dëpp bu dajee ci yow mu doog la bàyyi nga jàll ñu xam ba foofa ba mu fa nekkee daal di kaamil jàng ko organisé woon ak ñam ko joxoon ñu jiite ko ñëpp ñu xam leen saytoo ko noo xam ne léeg-léeg waxtu sàngam jot mu leen di takkaloo ab néeg wala nangam di leen liggéeyloo ab liggéey waaye du tee bu waxtu jàng mi jotee ñoom ñii liggéey dañuy séddoo kaamil bi seen biir tàmbaleel barab sàngam barab sàngam kee tàmbaleel barab sàngam barab sàngam ñoom ñëpp ñuy tari boole ko di liggéey seen liggéey loola doon aada ju wéy ci yoonu murit ba fii ñu koy waxee muy wéy ba ci barab bii ñu nekk rek am na daari kaamil ay mag nekk fi ñoo xam ne ñooy taxawu jàngal alxuraan bi mu set kon nit bëgg ñëw gannaaw gi nag di la wan ne la kat man moom maa la gën a bëgg Sëñ Tuubaa wala maa la gën a xam léegi ci biir loolu moo sama xir dama yóbbu ci man alxuraan fa xasida laa jàng waaye du ma jàng alxuraan yemu ca waaye mujj dem ba yegg ci nag naan la far léegi xasida moo gën alxuraan nag di ci wax ay théorie yu kenn xamut loolu moom yëf seetaane dong la du la yëf seetaan rek la kon sëriñ bi nee na ñiy wax loolu setan rek rekelen waru la ñu wax dara du ci lu wer dara weru ci daad ne lima lay digal nak moy ndax xam nga waxon nañ fi barki démb ne faratee jàng faratee tudd yàlla mooy jàng alxuraan seytaane nag sëriñ bi dañu waxon na da bokk ci aw anam yi wor yi nam bu lay wor ci mbir leg leg bu la jare wet gune ngir bañ la def lo nga lank te ba faaw nga def day ci anam yi lay woré lii farata dala koy bàyyi loo def loolu sunna loolu ci doxin seetaan la bokk lii farata day fexe ba bàyyi loo la ko def loolu sunna booba yàqule nga te yëgoon yàqule nga da nga cey nekk yi ngar-ngari te fekk la nga waroon a jiital jiitaloo ko war a jàng alxuraan doo ko jàng waaye yaa ngi naan doog tur yàlla wuñ ma jox nangam ak nangam te fu waxtu jot da ko def waaye alxuraan ji sa yoon ci nekk wala yaa ngi naan sama doolu ba nangam ak nangam waxtu sàngam dinaa ko def te alxuraan ci yoon ci nekk mooy ne faratee tudd yàlla muy alxuraan day fexe ba moytu ba génne ko ci yow bàyyi la na ngay ngari ci sunna ya boobaa doo jariñu doo jariñu mu ne alxuraan nag mooy cosaanul bépp xam-xam bu nekk ci àdduna si bépp xam-xam waxut sax xam-xami diine yi rek waaye xam-xam yi ba ci yidul xam-xami diine sax te loolu wax ju wér wér wér la xaj na nag leeral ko dana aajalu gudd a gudd waaye ci gàttal ba ci xam-xam yii nga xam ne moom lañ tudde ay ay xam-xami doomu aadama sax boo ci demee amu ci benn xam-xam bu boo xam ne boo delloo ci alxuraan danga nga gis ay aaya yoo xam ne ay junja nga ca yoo xam ne day junj loola waaye nag fuuti rek ma ta xel mooy njuumte loolu ñu bari daan ci dugg mooy am na ñooñ buñ gisee yenn borom xam-xam yi di tànn aay yu bari ci alxuraan di wax la ca nekk ci ay xam-xam ci wàllu science ak yu ni mel day tax ñu mujj ba jàppee téere boo xam ne moom dafay ñëw daal ngir di indi ay ay ay xam-xam ak nangam déedéet déedéet loolu moo tax ko jog alxuraan du téere science boo xam ne ñëw di ñu wax ay bindub doomu aadama ay garab ak i yooyu tax koo jóg ndax mboolem yim wax ci wàllu googu yëpp itam lu ci ne boo ca delloo boo xoolee ca aay ko jiitu wala ya mujj danga xam ne daa am lu tax mu di ko wax weesuwul jublu laa wan kàttanug yàlla rek la jublu jubluwu ci lu weesu wan la kàttanug yàlla ak wan la itam ni nga war a bàyyee xel sa borom loolu rek la jublu waaye doonu téere boo xam daa ñoo ngir du ñu nettali téere histoire wala muy téereb médecine wala téereb astronomie wala téereb déer déer du du téereb yooyu yëpp alxuraan téereb gindee la jëme ci yoon yàlla waaye nag gindee da koy jaare ci ay méthodes yu wuute yu bari ni mu koy waxee léeg-léeg ci anamu gëm loola yàlla ci waxin noonu la koy jaare léeg-léeg itam ci jox la ci ay misaal ci mbindee fi yàlla yim teg ci kaw suuf ak li la tiim ak li la wër lépp ngeen di la wan kàttan ak borom ak sañ-sañam ak man-manam kon mu ne mooy cosaanul bépp xam-xam bu mën a doon kon nanga nga góorgóorlu ba moytu bu ko gàddaay mukk bu ko bañ di jàng waaye del sax ci di ko jàng waxtu ne te bu la yàlla mayee xam-xam itam ba nga man di xam li muy wax nga di ko settantal di ca génne di ca ballulu la nga ca mën a génne lépp ci ay atte ak ay njëriñ yoo xam ne dan la jariñ tey jëriñ la ëllëg loolu euh, ni nga xamee ne noonu la ko borom xam-xam yu jëkk yaak nit ñu baax ñu jëkk ñi doon defee daal na ndax ñooñu jiitu woon ñëpp kat nga leen di dégg ak seen xam-xam yu kawe yu am yu am maanaa yañ amoon kum ci mën a doon ci ñoom la am boo ko doon natt du dara lu may alxuraan dafa mel ni géej la mu ñëw jël ab koogam walla ak potam tànk ca dara rek lam ca mën a am daal mu tànk ko ci yóbbu waaye lafa fa des moom ak géej la goo xam ne ba addunay tukki ku ne dana ñëw tànk ca ta te du tee mu des lu ëpp la nga ci tànk noonu la ko yàlla bindee euh, xam nga am na ci alxuraan lu ñu tuddee ay ay aaya yoo xam ne day wax ci nature bi ak li ci aju aaya yu bare bare bare bare ci alxuraan am na borom xam-xam yoo xam dañ ci def ay tafsir benn borom xam-xam mag docteur Zuxlul Najjar gis naa def na ci ab dafa dajale aaya yooyu ci alxuraan jël yëpp dajale ko firi ab scientifique bu mag mag la benn bu ci nekk mu wax scientifiquement li alxuraan wax ak ni ko science saxalee ak ni mu dëppoog liñ ñu xam ak nangam leeral daal wane bis nag benn waay di ko laaj ne ko léegi yow lii nga def ci sa téere bii muy téere bu bees boo xam ne ci at yii nii la ak xam-xam yu xóot yi nga ci indi euh, nga xam ne boroom xam-xame tafsir ya la jiitu woon ñoom tabar yeeg ibnu kasir ak razi yeeg ñëpp kenn mus cee wax lu jege lii seen tafsir yow boo koy liir nu lay def noo koy gisee ndeysaan mu doon ko mën a sant yàlla mun ne ko dara laa ko gise lu weesu xam ne alxuraan moo mel noonu rek ndax fañ tolloon ca seen jamono ak seeni xam-xam foofa lañ waxe ndax wóor na ma ne man mi itam maa ngi bind lii ci jamono ji tolloog yow nga di koy yem waaye bu ñu fi yàlla bàyyee ba téeméer ci kanam wala lu ko ëpp nit dana ñëwaat suñ gannaaw bu tiimaatee suñ téere yi lii nga yéemoo ci ñu njëkk ña nañ doon waxee ci nii noonu la yéemoo ci man mii ni ma doon waxee ci lii ndax yëf yi dana weesu fii gën a yaatu ba dana ci wax loo xam ne day mel ne man mosuma wax dara ndax alxuraan moo mel noonu alxuraan moo mel noonu ñu xam na itam lii muy wax nii ndax alxuraan mboolem diine lislaam lépp loo fi mën a gis ci xeetu atte aku tëraliin aku doxin lum mën a doon ci alxuraanu karim niñ ko jëlee lépp alxuraan mooy ndey lislaam lépp ci la jóge lépp xam-xam bii ñuy tudde fiq nga xam ne ñoo moo la jox atte yi di la ko wax nan la defal nii defal naa booy jàpp nii ngay def booy julli nii ngay def booy koor nii lañ koy defee booy aj màkka nangam booy yaxantu ci wàllu alal di jëflante ci wàllu commerce nangam alal ni nga koy defee walu sëy ni lañ koy defé lu ne mu lay wax xam-xam bobu du dara lu wessu ay ay teqantal la rek yu jël ci alcorane karim lo rek la waaye doonut ay wax yo xamne ay borom xam-xam ñoo tok fe yor seen xel yu rafet di rab ka tega ka wax ak di joxe seeni xalat dede dede ndax xam-xamul islam du ay xalat xam-xamul islam ciosan la am ciosan li wahyu la moy wax yàlla la wax yonente sallallahu alayhi wasallam amul la yenn amut xalaat bu nit di yor di ko xalaat nii amut dëgg la nag dees nay jëfandikoo xel ci ay mbir waaye bu ñu jëfandikoo xel xel bu boobaa daa fekk am lu ko tënk loo xam ne lépp ci alxuraan ak sunna lay delluwaat waaye amut doo am sañ-sañu boyal sam xel nii rek di xalaate nu la neexee waaye xel mi daa am ay règle ak ay mbir yu bari yu ko tënk ba noppi ba nga xam ne ci biir loola rek lay dox kon mooy cosaanul lépp mu wax na itam saa yooy jàng alxuraan yit lépp loo ca fekk muy aw tagg ci aw aw melokaan woo xam ne yàlla dafa tagg jaam ña ko melowoo nga góorgóorlu ci jéem a melowoo melokaan woowe ndax bokk ci yàlla di tagg waaye itam lépp loo ca fekk muy aw melokaan wu yàlla di tere jaam ñi ngir ñu bañ koo melowoo nga góorgóorlu yow itam ci bañ a melowoo melokaan woowee loolu bari na lool ci alxuraan alxuraan boo ci demee da fekk suñu borom di tagg jaamam ñi nga xam dañoo dëggu kon boko de jang leci la ci sa war gar moy nga jema gor góorgóorlu ci jema a ngir bak ñu jam ñoon yalla tagg la nga ci fekk borom di tagg jaamam ñi nga xamne dañoo dañuy muñ boba la ci sa war a gar mooy jéem a gor góorgóorlu muñ ngir bok ci jam ñoon yalla tagg ak yenen ak yenen da nga ci fekk borom di ŋàññi di lo jam ñi ak di ŋàññi ñi nga xamne dañoo kacior dañoo nek ci ak jubadi dañuy moy yalla dañoo mel dañoo jaar jaarul ci yoon yalla bëgg góorgóorlul ngir moytu bañ a bokk ngir bañ a bokk ci yàlla di ñu yàlla di ŋàññi ak ñi muy wana ne seen yoon di yoon wu jub <clears throat> mu ne kon loolu mooy warteefu jullit bi ci bu jàngal xuraan waaye itam bul jàpp ne <coughs> day téere boo xam ne da koy jàng rek waaye li muy wax sa yoo nekku ci sa yoo nekkul ci itam ci di ko jëfandikoo loolu moytu ko ndax jàngum kese mi rek te jéemoo lu ci melawoo la muy digle jéemoo lu ci moytu melawoo la muy tare ab safaan lay indi nit yonente bi aleyhi salaatu salaam moo ko wax dafa wax ne bari waa na kuy jàng alxuraan te alxuraan da nga koy rëbbu bari waa na kuy jàng alxuraan te alxuraan da nga koy rëbbu lu waral mu koy rëbbu mooy ndax li muy digle du ko def li muy tere du ko baax li muy digle du ko def li muy tere du ko bàyyi kon day mel ne njàngam alxuraanam mi day mel ne kooku day day day yëjji yàlla day mel ne da koy wane ko maa xam naa li ngay digle waaye du ma ko def xam naa li ngay tere waaye du ma ko baax moo tax kooku alxuraan da koy rëbb yan ca lu musal alxuraan itam yonent bi alayhi salaatu wa salaam nañu neñu muy doone luy rammu nit ëllëg yawmal qiyaam rammu nit alxuraan day rammoo yonent bi alayhi wax nañu ko ci ay waxin bari day leen jàng alxuraan ndax ëllëg yawmal qiyaam day dikk di rammu ñu ko daan jàng di leen rammu di leen tinu ci kanam yàlla waaye noonu la waxee itam ne alxuraan yit dana doon kuy yey nit ëllëg ndax ki nga xam ne yoonam nekkutoon ci li muy digle yoonam nekkutoon ci li muy tere bu ëllëgee day ñëw yey ko ci kanam boromam layoog moom yey ko lay def yan ci yàlla musal kon mu ne li tax ma lay wax loolu mooy ndax bàyyil xel ne yàlla alxuraan ji wàccewu ko lu dul ngir nga góorgóorlu ci jëfe ci jëfe li ci nekk wàccewu ko ngir muy lu ñuy jàng rek wala muy lu ñuy xool di ko barkeeloo ko ziyaara rek déedéet lu ñuy jëfe la alxuraan loolu mooy lu ci jiitu yàlla daf ko wàcce ngir muy lu ñuy jëfe lu ñuy jëfe la yi ci des yëpp nag da caa dolleku waaye cosaan li moom mooy lu ñuy jëfe la waaye itam nag bu kenn jàpp ne lu ñuy jëfe la rek it nag tax nga jàpp na kon maanaam moo këyitu journal bee moo yem wala moo constition bee moo yem ñoo yam nga xam ne ay tënk-tënk la daal tënk nit dangay ngay jëfee rek mu jeex déedéet alxuraan daa ëpp na loolu ni mu doone lu jëfe nga xam ne mooy cosaan li waaye teewu tam yàlla daf cee def barke nag boo xam ne barke bi moo tax boo koy jàng rek njàng mi itam amal la njariñ ni nga xamee ne boo koy jëfe-jëfe gi itam amal la njariñ hmm. mu teg ci ne ngir rëyu darajay jang alquran ak xam lamuy wax gor golu ci jëm ko xam di jema deg diko tewlu di borom xam mi sax wax ne di jang alquran ta la ngay new lol bari wut waye lu mana xew yaangi jema gor golu ci di setantal di deg di xol di xam li Fufu wax lola mo gën fuuf ngay jang lu bare bare bare te tewlu ci dara sey yoo ci lamuy wax sey yoo ci xam ci dara lu góor góorlu ci di settantal di diglu ngir di xam ni muy wax moo gën fuuf di jàng lu baari te sayo nekku ci la muy wax waxoon na ko ca la jàll ci gannaaw ne woon na la benn aaya bu nit ki jàng settantal ko moo gën ci moom wàcce kaamil bépp te settantalu ci dara moo gën ci moom ndax benn aaya bi mu settantal mën naa soppi ak dundam addunam sépp mën na koo soppi mën na koo soppi mu teg ci ne am na sax ñoo xam ne yegg nañ ci wax ne koo xam ne day jàngal xuraan te du ko du ko du ko teewlu di seetantal njàngam lu mu bari bari du ci am benn tuyaaba du ci jëre daa di wax ne am nañu wax it nag safaan bi ne nit bu dee jàng ba ci bu teewlu dara wala xamul dara ci la du see dana am tuyaaba daa dina waaye loolu nag bàyyil xel ne bu ñu koy wax mooy ci kaw koo xam ne jàngut ba mën a xam dara ca la di wax Issa Gueye mi nga xam ne moom jàngut ba mën a xam dara ci la alxuraan di wax waaye am njàngam mi ngi yem ci moom ferme ji man naa liir bu tiimee alxuraan dana ko mën jàng kooka moom ngant loolu la am kon nay jàng tey tey ànd ak teggin yi war a àndal te teggin ni sëñ bi dana ci ñëw léegi ci teewlu ko ak ndax teggin yi teewlu xol léeg-léeg dana am ci lu dul sax ngay xam li wax waaye yeneen i mbir moo la koy jox mooy nga yëg ne lii nga tiim wax yàlla nga tiim loolu rëy la boo yëgee ne lii nga tiim wax yàlla nga tiim ta am na ñoo fonk ñoo xam ne boo tiimoon seeni wax da ko jox dayoo bu kawe lii nga tiim nag wax yàlla ma bindu ñoo ñëpp la moom nga tiim moom nga jàkkaar lool maanaam lii nga tiim moom mooy yàlla wax ak yow yow moom nga tiim loolu boo ko teewloo da nga xam ne li ngay def lu rëy la lu mag la ba boo xamut ci li muy wax benn baat itam dana am tiitaanga jum def ci sa xol dana am teewlu akuk wegel gum def ci sa xol loola dan la jariñ loola mën nga caa jariñoo lool am na koo xam ne tafsir na alxuraan sax te du ci loola ndax yëg-yëg bi moo la koy jariñ mu daal di wax ne waaye ki nga xam ne nag jàng na moom jàng arab jàng ci xam-xami diine lu ko may mu man di xam li alxuraan di wax kooku moom bu doon xëy di wàcc kaamilub lëm te du ci teewlu dara it zéro lay doon dara du ko ci am ndax kooku moom am na jumtukaay yu mën cee xam dara da koo jëfandikoo wut kon boobaa dara du ko ci am ndax alxuraan dañ ko war a xal nag di ko xam dañoo war di xam li muy wax di ko teewlu gis nañ ne borom xam-xam loolu wax nañ ko ci ba ci naafile yi ñu def ci koor comme ni ñu ko defee fan yii ci naafile yi ñu def ci koor gi dañuy wax ne bokk na ci jubluwaay bi loolu mooy ndax diirub at mi xaj na jullit ñu bari digluwuñ fi alxuraan koor gi nag bu ñëwee weer wi dana nekk occasion ci ñu mën a dégtalaat julli ñi alxuraan ñu dégg ko ñu dégg ko te am na koog di alxuraan diglu gi daa am jeexit dafa am jeexit ba léeg-léeg yow nga mokkal ko sax di ko jàng boo dee diglu keneen di ko jàng ku dul yow mu def ci yow jeexit joo xam ne bi nga koy jàngal sa bopp du def ci yow jeexit ju toll noonu yonente bi aleyhi salaam daanay jàngaloo alxuraan doon na ko jàngaloo Abdullah ibn Mas'ud di ko jàngaloo ba bi mu koy jàngaloo sax ne ko jàngal ma mu ne ko ah nu ma lay jàngale ta yow yow la yàlla wàcc ci yow alxuraan mu ne ko waaye dama ko bëgg a dégg ci keneen ku dul man nga xam ne day jàng ibnu Mas'ud di jàng muy dégg di jàng ba ci àgg jékki-jékki rek gestu xool gis yonent bi alayhi salaam ron xañi rot loolu dafa am solo déglu gi ci keneen dafa am jeexit yu bari yu def ci yow dafa am jeexit yu bari yu mu def ci nit ki mu wax ne teewlu gi solo su mu am tax na ba jële nañ ci sayduna abdullah ibnu abbas radiallahu anhu abdullah ibnu abbas ci saxaaba yi la bokkoon rakk la ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam doomi baayam la abbas mi ko jur ak waajur yonente bi alayhi salatu salaam ñoo bokk baay doomi abdul mutalib la mu wax ne abdullah ibnu abbas moom la ñuy wooye fóoréew xeetu yonente bi salallahu alayhi wa sallam ku bari woon xam-xam la te yàlla may ko yonent bi aleyhi salaam da koo ñaanaloon yàlla déggal ko diine xamal ko diine kàngam la woon gu mag a mag tee ndaw la woon waaye daal teeloon taxaw ak yonent bi aleyhi salaam Seydina Abdullah ibn Abbas wax nañ ne wax na ne julli ñaari rakk sax daal te teewlu la nga cay jàng mu dugg ci sa xol ci guddi gi moo gën sax nga taxaw guddi gépp te sa xol nekkul ci dara ca la ngay jàng guddi gépp nga taxaw ko guddi gépp nga taxaw ko di nafila te la ngay wax lépp sa xel nekku ca yaa ngi koy tare waaye sa xel a ngi ca leneen jàng julli ñaar rakk dong yoo xam ne la nga cay jàng ak lu mu tuut teewlu ko ko moo gën fuuf moo ëpp moo ko ëpp tuyaaba gannaaw bi nag mu ne kon ci di farlu ci di jàng alxuraan tey farlu di góorgóorlu ci di ko jéem a xam ak di ko teewlu sa kem kàttan mu daal di ñëw nag ci teggini jang alquran ni la ko junjé won samonté teggini muna teggini ba ca jitu moy bo jang alquran na nga lu ba saw yaram na laab saw yaram na laab na laab ni sobe bu mu ci saw yaram fenn fo xam wala fo njort banen bi tam moy saw yaram sa yere yi nga sol wala lu yor atte bi yére na laab lu yor rek mooy lépp lu ci sa jëmm rek mooy lu yor na laab ni ki itam ngay teewlu di setantal maanaa yi nekk ci alquran ci la bokk ci teggin la bokk ci la bokk ci teggin yi ba tey boo jàng alquran nga ànd ko dal nga dal na dégg fi nga toog di jàng te bañ di jàng di yëngutu nga nga moytu ko xam nga lu bari ci ñun ci daara ji léeg-léeg da nga ciy jëlee tàmm di jàngal xanaan di ming nga xam da nga koy da nga ciy jëlee ba dem ba doon mag sax boo yoree sa téere di jàngal xuraan faaw da ngay ming ndax da nga koo tàmm da nga ne loolu bokkul ci teggi di jàngal xuraan boo koy jàng dell fexe ba dal sëriñ bi radiallahu anhu moom mii nettal nañ ci loolu ci moom ci xissa bu yéeme ci ni mu doon sàmme teggi nii ci lépp ak ci ñëpp ñu ko wër sëriñ ba Bachiru radiallahu anhu xam ngeen bi Serigne bi nekkee gànnaar da ko joxoon sëñ bay jaxate men na moo ko doon jàngal alxuraan ñettal ne bim jàngee ba mokkal bis mu indi ko sëriñ bi wala sëriñ bi laaj ko mu indi ko sëriñ bi toogloo ko ci bunt ba nekk ci biir néeg bi toogloo ko ci bunt bi di ko di ko tareloo mooy tari ca kaw sëñ bi di ko diglul boppam muy tara ca kaw waaye léeg-léeg sëriñ bi jaar fi wala léeg-léeg mu bàyyi ko xel xool ko ba mu tari ba yeggal macha allah tari bi rafet lool alxuraan ji mokk lool waaye sëriñ bi woo sëñ bay na ko na ko yóbbuwaat dafa gën a defaraat mu demaat yóbbu tari loo xool lu ne mu xool amuk jaaxle daal ndax bi mu ko tar la waate daa tare tare bu mokk bu rafet bu set wecc dara amul benn jafe-jafe amul mu amuk jaaxle xamut lu waral sëñ bi di wax ngir ñu yóbbuwaat ko xoolaat ko moo indiwaat ko ba ca ñetteelu yoon ba ca la xalaate ne daal xam na ne kon bi mu mu toog di xool mu xalaat ne kon xam na ne boo demee ming bi muy def ni muy yëngatoo nii moo tax sëñ bi wax ni muy def nii di jàng di ming nii ni muy def looloo tax sëñ bi di wax loolu la loolu la bëgg ñu corriger ko nga xam ne loolu da lay wan teggini njàng alxuraan ak teggini diine yëpp rek ni mu ko doon sàmmee ci lépp ak di bëgg ñu yar ñëpp itam ci ñu ko sàmm ci lépp loolu lay wan mooy lu kawe kawe kawe ndax ndaw li nga xam ne ba muy ndaw lañ ko tàggat ci loolu mu màggale ko xam nga loolu dootu jóg ci moom ba faaw dootu jóg ci moom mu ne itam bokk na ci teggin yi bala nga jang alquran nga soccu nga soccu na nga setal sa gimiñ bam set ndax li ngay bëgg tuddu lu mag la lu reey la loo xam ci yàlla la jóge te ay waxama kon jaaduwut rafetut muy jaar ci gimiñ goo xam dafa taq wala muy jaar ci gimiñ goo xam ne dafa am xet gu neexut kon na nga ko raxas bam na nga setal sa gimiñ soccu doog a jàng alquran niki noonu it boo jàng alquran nga jublu xibla ci teggini la bokk jublu xibla ci teggini la bokk ci teggini la bokk it boo jàng alxuraan nga ànd ak teewlu ci sa xol teewlu gi nag bokkut ak teewlu li muy wax waaye teewlu teewlu yàlla la bëgg a wax teewlu sa borom teewlu gi nga xam ne da lay jural ak wegu ci sa jëmm da lay jural ak wegu ci sa jëmm mu ne waaye nag bul juum ndax teewlu gi ma lay wax nga xam ne da lay jural ak wegu ci sa jëmm sa jëmm na tekk dal ne rim ku la fekk fi nga toog xam ne li ngay def lu réy la ci yow lu kawe la ci yow waaye bu mu la yóbbu mukk nag teewlu gaa wegu ga yóbbu la ci nooy déedéet ak nooy nga xam ne li ngay def day mel ne day ànd ak jëfiinu koo xam ne daal day mel ne ak góore du feeñ ci moom loolu moom bu ko ci boole ndax nag alquran da bokk ci liñ sopp ci buñ koy jàng ñu jàng ko njàngin mu dëgër daa bokk ci liñ sopp ci njàng mi te ñaar yooyu léeg-léeg du yomb mu ànd am na nooy nooyee ba ëpp ak nooy lewatale sa bopp ba ba ëpp ba ëpp mel na kuy deedeelu noonu rek boobaa du mën a ànd rek jàng alxuraan ci kàddu gu dëgër gi ñu ko war a jànge te alxuraan màggaayam daa tax buñ koy jàng sax dañoo war a yëg màggaayam ci kàddu gi ñu koy jàngee daa war a dëgër kenn wuru koo dañoo sopp buñ koy jàng ñu jàng ko njàng mu góoree góoree moo xam ne dañuy yëg ne ki ko jàng góor la ku dëgër la daan na moo tax bul di jàng alxuraan di lewetal sa kàddoo ko suufeel ba mel na jigéen juy wax loolu sëppuñ ko ci alxuraan ndax màggaayam wut ak loolu wut ak loolu daal ne waaye ni ko noonu it booy jàng alxuraan it di ko wayantu dee ko moytu rawatina wayantu gu la yóbbu ci di ko yàq loolu na nga koy moytu ndax wayantu léeg-léeg bu la yàlla dimbalewut dan la yóbbu ci nga yàq alxuraan te doo ko yëg rawatee na nag bu dee atte yi aju ci njàng alxuraan mooy li ñu tëj wii rek yooyu atte yooyu am na nooy wayantoo dana la yóbbu ci nga yàq ko damm ko te doo ko yëg te jàng alxuraan ci njàngum tajwid mu wér ci attey tajwid farata faratala ci bépp jullit mu man ko fardu ayn la ci jullit mu man ko kenn sañu ko bañ a def te am na noo xam ne boo ni dee jàng alxuraan danga damu lu bari ci àtte yooyu loolu lii sëriñ bi wax itam luñ xam la luñ gis la lu am la lu wér a wér jamono jii ñu nekk loolu lu ñuy gis la ay ay jàngkat yu siiw ci àdduna si sax jàngkat yu siiw ci àdduna si ñoo xam ne ànd ak seenu siiw lépp du te ñi jàng attey jàngi ne alxuraan danañ xam ne ci seen biirum jàng dana neex waaye damm dañuy dammu attey léeg lekk teewut nak, nit ki yàlla mën na ko cee musal ci bu xereñee atte yi te respecté ko bu xereñee atte yi te respecté ko ndax mënees ñaar yi luñ mënees boole la mënees na ko boole na xereñee atte yi respecté ko doo ci damm dara ba noppi itam njàng mi neex loolu lu mën a nekk la sëñ abul baraka mi macha allah yàlla boole na ko loolu li nga jàng ci atte yi wala la nga ci xamagus néew da nga xam respecté na atte yi ni koy normal te itam du tee njàng mi neex na loolu lu mën a nekk la mu ne ni ki itam booy jàngal alxuraan na ci jublu jëmmi yàlla rek na yàlla rek tax nag waaye bul jàngal alxuraan ngir wut ci alal wala nga di ko jàng ngir di ko njis sale yëpp bu mu tax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko waxoon ne ñi nga xam ne dañuy jàngal xuraan di ci njis sal ñooy ñi yàlla njëkk a lakk ci sawaram moo ëllëg jàngkat alxuraan yi nga xam ne dañuy gisal nga xam ne dañuy jàng wan nit ñi seen neexuk baat ak di puukare woo kii ci kaw nit ñi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam nee na ñooñu ñooy ñi yàlla njëkk a lakk ci sawaram bu ëllëg waliyaazu billaahi taala ak itam bu ko defee ngir wute ko alal loolu itam xaj na ñun du suñu aada waaye am na ci ay ay société yoo xam ne loolu dafa am aada la fa damay bañ a tudd ay turi réew waaye am na ci ay réew yooyu aada fa bu dëj amee wala yenn xew-xew yi céet wala xew-xew ba wala xew-xew naqar dañ koy def ab jàngkat day ñëw comme ni ñu def ñun nga xam ne dañu baas ab jàngkat xasida ñëw yëkkati ñoom alxuraan lañ koy def jàngkat bi day ñëw ñu tegal ko ab fauteuil bu mag mu toog di jàng alxuraan mbooloo mi wër ko yëkkati seen alal di ko jox nga xam ne ci yooyu lay dund yu mel noonu moo tax muy wax ndax yooyu ngir mu ànd ak mucc ci ay njëstal ak ya ca war a ànd ya ca war a yam war a mucc day jafe mu mucc ci moo tax ñu la ko day mujj rek andi ci alxuraan ci commerce te loolu moom alxuraan loolu tox ko jog mu ne itam bokk na ci teggi ni booy jàng alxuraan itam nga teggi nga sàmmonteeg rëyaayub li ngay jàng tegginoo ak moom tegginoo ak alxuraan nga wormaal alxuraan yëg ne lu rëy ngay jàng xam ne amul lenn loo mën a jàng lu moom tegginoo ak alxuraan moo la yóbbu ci nga yëg ci sa xol ne yaa ngi teewlu di déeyaale ak sa borom yaa ngi mel na daal koo xam ne sunu borom tabaraka taala daa toog ak yow ci jataay di wax ak yow noonu la mel loolu nag boo ko teewloo ci sa xol li ngay def da nga ko jox yitte da nga ko jox worma ndax xam nga ne am na koo xam ne rek bu la woowoon di wax ak yow nga bàyyi lépp loo doon def sa xel nga génn ko ci lépp lu ci nekkoon kon nag anamoog bu dee yàlla mi nga xam ne moo bind ñoo ñëpp bu dee moom nga toogal di wax ak moom mu ne kon booy jàng alxuraan na nga mel ne ku jàkkaarloog sa borom tabaraka wa taala jàkkaarloog moom te xam ne moom yàlla kat boo jàkkaarloowut te moom di ko gis ci say bët yi moom yàlla jëmm jum mën a doon mi ngi janloog yow moom jenn jëmm ju ko rëcc amul jëmm yëpp lay janloog kon yow nga bàyyi xel ndax xam ne mi ngi janloog yow mu ne nag ci walu jang alxuraan itam amul waxtu Manam amul wenn waxtu wuñu sip ku ci jang alxuraan la bëgg wax wenn waxtu waxtu wu mëna doon mëna sa jang jàng alxuraan daal ne ci lool la lay waxé ne la amna ci borom xam-xam ñoo xam dañu wax ne gëna san dañ koy sib wutal nañ koy lay lañ ko layale moy ngir ne jifi mu yahudi yi waxtu lañ daan jang seen téré yi tax ñu ne kon yow julit bi ngir bañ leen niru kon bul jàngal xuraan waxtu woowu del bàyyi ba laata takusan wala gannaaw bu timis jotee mu ne waaye déedéet loolu du wax ju wér de loolu ndax ñoom la ñuy def di ko def ci waxtu woowu la ñuy def bu jubut du tax ñu ne kon ñun duñ def ndax amul nag wenn waxtu woo xam ne nga caa def lu baax lu dul ne am na keneen ko cay defu safaan boo ko boo ko topp ci loolu doo def dara ci benn waxtu doo waxtu ne am na def leneen waaye ñoom ak la ñuy def yàgg la ngay def ñoom ak seen yéene yàgg sa yéene kon jubluwoo leen roy jubluwoo leen a niru jubluwoo leen a leer na yow da nekk ci sa ndigalu bopp di ko def def ko ak na nga ko mën a defee mu ne waaye nag teewul am na waxtu woo xam ne mooy waxtu wi gën nag ci jàngal alxuraan moom mooy wan mooy nga jàng alxuraan mooy njàng mi gën ci njàng yi te mooy nga jàng ko ci naafila guddi rawatina mu nek ci mujju guddiga ta moy la tàmbalee ay trois heures du matin jëm kaw waxtu wowe moy njang mi gën ci njàng alquran waxtu wowe ta moy waxtu woom gëne ndax li ci rot ci ay hadith ak yu mel ci di sonye ci jang alquran, ci waxtu woowu ak waxtu woowu itam dal gumi dal ndax fekk na ñu bari ci nit ñi nelaw nañ ci yewoguñ waxtu day dal waxtu woowu bu ci nit ki dé jaamu yalla ci yu mel ni xelam day man day yomb ci moom mu teewlu la mu war a teewlu lépp mën koo teewlu day yomb ci moom rawatina it nag bu fekkee ne jiital na dara ci ay nelaw dana tax itam xelam gën a gën a set moom mi nga xam ne mooy jàng ci waxtu woowu mu ne ni ki itam jàng alxuraan diggante timis ak gee ci waxtu yi gën la bokk diggante timis ak lii tax na moom sëriñ bi itam radiallahu anhu sëñ Bachir nett na ci mu naan baaxal xadim ne sëriñ bi diggante mi ak gee da ci daan naafila ñaar rakk yu gudd yoo xam ne baqara la ci daan ak al imran ñaar rakk yu gudd gudd gudd laan doon yoo xam ne daanaka bu ci noppi gee day jot di tari ca rakk bu njëkk ba baqara rakkam ñaar ba ali imran mu ne ni itam bokk na ci jàngal alxuraan gannaaw jullik suba gannaaw suba ba nga xamee ne wees na tuuti ni itam jàng ko bisub altine ndax bisu altine itam xam nañu ci bis yi gën ci bis yi semaine bi la bokk ni ko doon jàng ko bisub yow mu arafa muy bisub juróom-ñeenteelu fanu tabaski ni ki noonu itam jàng ko bisub ajjuma ndax ajjuma it xam nañ ne mooy bis bi gën ci bisi semaine bi ajjuma wax nañ ne mooy bis bi nga xam ne sax ci la saadi taxaw ni mu ñëw ci xadis mu wax itam ne bokk na ci jàng ko bisub alxamis ndax alxamis itam yonent bi aleyhi waxoon na ne mooy bis bi ñuy yóbbu jëf ko gaaral suñu borom jëfi semaine bépp alxamis dañ koy yóbbu di gaaral suñu borom kon bis yi jàng ci alxuraan am na dayoo bu kawee bu mu am teewut nag bis yi des yëpp itam a baax ndax dañ laa digal nga di ko jàng bis mu set ak bis bu mën a doon mu ne ci wàllu njàngeen wi itam jàng alxuraan di ko xool moo gën fuuf nga di ko tari di ko jàng di xool mooy li tuddee ñun maanaam xamu nu ñu koy waxeeti maanaam nga di ko tiim ñi daal di xool loolu moo gën fuuf nga ne mokkal naa rek damay tari lu tax mooy ndax saa yoo xamee ne ubbi nga kaamil di xool di jàng xamal ne ubbi gi ko ubbi jàng janloog moom di jàng rek fa saasa suñ borom da cee daal di wooye fale fitnay bàmmeel ci sa ñaari way jur bu fekkoon sax ñu nekk ci yenn jafe-jafe ci seen bàmmeel suñu borom daal di woyofal fitna ci ñoom fa saasa yeneen yi ngëneel yu te bokk na ci itam képp koo xam ne day jàngal xuraan di ko xool suñu borom dana ko may mu dundaale akub gisam yàlla dana ko musal ci ñàkk ay bët wala bët yu lëndam wala yu mel noonu yàlla mën na ko cee musal ni noonu itam ay waajuram buñ doon sax ñaar ñoo xam dañoo faatu ci kéefar sax wala yasubillah màggaayub li mu def dana tax suñu borom dana woyofal tuuti ci seen bugal dara kon mooy lu rëy rëy rëy la ndax kéefar faatu ci ni mu luy tax nit ki faatu na sax waaye du tee ñu woyofal dara ci mbugalam loolu kon lu kawe la lu rëy rëy la loolu nag bu ko sëriñ bi wax xaj na bu dee ci ñun ñu bari ci ñun mën nañoo jaaxal ndax xaj na ñun aadowuñ loolu ñun ci senegal rawat na suñ gox yi di ñu mooy alxuraan moom boo ko gënoon a mokkal ñëpp it du tee sa waqafu bis moom da koy tiim di xool loolu mooy sunu ada ñoom te mooy aada ji gën nag waaye am na yeneen i gox yoo xam ne ci àdduna si yeneen réew damay bañ yoo xam ne boo fa demee da ngay gis ne nit ñi lañ gën a aada mooy alxuraan dañ koy tare dañ koy tare damay wax ne am na réew sàngam moo xam ne daanaka xaw ngaa mën a natt ne diggante timis ak gee daanaka waa réew mépp ay alxuraan dañ ko fonk aada ci ñoom waaye tar rek lay doon gis ci ku yorub téere di jàng moom daanaka mënoo ko gis tar rek tar rek daanam daal nit ki bu xasee jàngal xam ba mokkal ko daanaka ba mu ko mokkale boo yeexee boobu léegi ji ubbi kaamilati tari daal lay def bis bu set nag waqafa moom dana koy tari mën naa bari lool waaye lépp tar rek la koy def du xol loolu nag baax na lool dana tax mokkal gi gën a sax waaye nag njuumte am na ci ndax dana wàññi ci setu tuyaaba lu bari itam ndax bët yi daa war a jaamu yàlla ci alxuraan ci da ca war a jaamu yàlla mu wax ne itam jàng alxuraan ak di ko xool di ko seetantal dayo bi mu am tax na lu mat ñaar lu mat fukk ak ñaar ci saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dëppoo nañ ci ne moo gën yeneen jëf yu bari ci jëfi lislaam sami xam yëpp jàngal alxuraan te di ko xool di ko seetantal moo gën am ñu wax ne lu tax mooy ndax bu ko nit ki dee xool day occupé ay bëtam ak làmmiñam ak xolam ak ay loxoom ak penkam bi ko teg boo dee jàngi tari di tari noonu rek daanaka mën ngaa wax ne say nopp koy dégg saw làmmiñ sam xel yooyu nga occupé ci jaamu yàlla gi ñetti cër bu dee na da nga koo yor teg ci di xool li ngay occupé ci say cër ci jaamu yàlla gi day gën a bari saw làmmiñ say nopp say bët say loxo yi nga ko téye sa penk bi nga ko teg muy juróomi cër ci sa yaram boo xam ne yëpp mi ngi dox ci jaamu yàlla gi boo tax moo ëpp tuyaaba foofu moo ëpp tuyaaba foofu mu teg ci ne itam bu fekk donte na nag euh, boo ko dee tari moom léeg lekk moo lay gën a mën a may nga gën di am teewlu léeg-léeg tari léeg-léeg moo lay gën a mën a am may sa xel gën a dal maanaam sa sa xel gën a tënku daal ci gën a mën a teewlu li ngay wax waaye nag loolu li maam am solo teewut lee ko ëpp solo ci geneen wet ndax da ca am dara ca fee te da nga ca dolli yeneen cër yi ci des bokk ci jaamu yàlla gi teg ci ne euh, ñàkk xool ab kaamil benn bis borom xam-xam ne dañoo xam ne sax loolu luñ sibla bis nga xëy ba jant soo ba 24 heures mat te ubbi woo alxuraan sa bët dal ci dañoo xam dañ ko sib ndax bis boo ko def na la wóor ne aw yiw bu bari faat na la aw yiw bu bare bare bare bari faat na la ndax it benn xool boo ubbi kaamil bi sa dal ci dañoo wax ne dañ koy jàppe ak jaamu yàlla loolu ci yàlla yu jëkk waxoon gén sa dal ci rek doonte ne jàngoo sax tuyaaba la ci yow jaamu yàlla ci yow gis nañ sun nit ñu baax ñi noonu nañ ko aadowoo jële ko Cheikhul Khadim radiallahu anhu ba léegi rek noonu nañ ko gisee suñ kilifa yi koo ci jox ab kaamil da nga gis lum gàtt-gàtt rek faw mu ubbi faw dana ko ubbi xool jàng ci tuuti doog a faw mu def ko ndax lan ndax loolu rek aw yiw la warees ko bàyyi mu rëcc warees ko bàyyi mu rëcc mu ne ci njàngin wi nag wuute nañ ci ndax Euh, jàng gi lu bari ak jàng gi lu néew te ànd ak setantal teewlu bu ci gën teewul kenn ku nekk ci ñoom ñi kuréel yooyu ñeena lee gën ñeena lee gën ku ci nekkit am nga ay sukkandikukaay yoo sukkandikoo ba wax la nga wax gis nga fii sëriñ bi feeñalaat na ak mànduteem ak rafetu yéeneem ci borom xam-xam yi ak xam gum leen xam ci ne li ñuy wax waxuñ ko ngir am jot rek wala wax ko ngir gi wuute rek waaye ku ci ne daa am yoo gis yu la convaincre yoo xam ne tax na mënoo wax lu dul lu weesu loola rek nga mën a wax ndax loolu nga jàpp ne mooy la wér kane nit gis lu mel noona faw ngeen wuute yéen ñaar waaye jubluwoo leen wuute waaye tegtal yi ngeen gis moo leen wutale waaye kenn ku ci jubloo wuute moroom amu ci mu wax ne ku am na tegtal bu mu tegtaloo ñenn ñi nga xam ne dañoo wax ne jàng alquran jàng <coughs> alquran jàng mu dal mu tey setantal ko ci sa xol ak sa xel te teewlu ko dal mu dal di ko ndank ndank mu dal te tey and ak atte yi wara and lepp baña yakamti dara mo gën fuuf nga di jang jang mo xamne sax xam nga sàmmonteeg atte yi alquran mom moy liñ tudde tëjwid lolou mom lu ta ñak la amud noy jang alquran ba do ko def loolu moom mi ngi mel na nga ne julli ak loo yàkkamti yàkkamti da jàng fatiha lu mu tànk-tànk fatiha danga ko jàng moom boo nekkoon ci xaree itam du tee da jàng fatiha boo xasee bay julli faaw nga jàng fatiha faaw nga rukon faaw nga sujjoot alxuraan njàng mi at tey njàng mi te mooy li ñu tudde tajwid nga xam ay règle la te mooy ni ko yonent bi aleyhi salaam doon jànge saxaaba yi déggee ko noonu di ko nettali muy wéy loolu moom amut nu nit di def ba du ko sàmmonteeg moom mënut ñàkk waaye léeg-léeg dañ ciy def wooye falu nga mën koo gën a gaawal tuuti gën koo baral léegi nag njàngin mu njëkk bi nag te mooy njàngin woo xam ne da ngay sàmmonteeg loolu ba noppi ànd ak teeylu ko dalal ko di ko def ndànk-ndànk mu dal di teewlu ci sa xol loolu am nañu ne moo gën fuuf te am nañ firnde juñ sukkandiku firnde ja mooy alquran daf ko wax suñu borom daa wax ne del jàng alquran jang mo xamne jang mu dal lay doon jang mu tey lay doon waratil qur'an tartila kon ci ñoo ci loolu lañ kene ko tax ñu wax loolu ñuy wax am ño xamne itam dañ ne dedet di jang jang mu bari Manam nga xamne bis bi nga jang ñaar fukki isib wala fanweeri isib ci bis bi xam nga loolu mom xawna bari jang ko wona mu ànd ak teey ak dal genn gi loolu yomul yomul mu daje loolu mom dana jafe lool nga bolé ko ndax li ngay jàng daf bari léegi nag nga sàmmonteeg rek njàng mu bari moomu jàng sa ñaar fukki isib wala sa fanweeri isib wala sa kaamilub lëm sax dëgg la yaa ngay sàmmonteeg attee waaye nag genn teey gaa genn dal gi moom doo ko ci sàmm am na ñu ne ba tey loolu itam moo gën ñooñe itam la wax waxuñ ko rek ngir seen xalaat wala bakkan waaye dañ koo sukkandikoo ci aaya bi suñ borom di digle ci alxuraan ne nañuy tudd yàlla tam bari del tudd sa borom tudd gu bare bare bare bare te di ko sàbbal ngoon ak suba loolu ci lañ sukkandikoo kon ne tudd gi lu bari lu sun borom digle la kon lii ca la bokk kon nang ko bari la loo mën a jàng quantité bi lu mu gën a mën a bari moo gën a baax mu daal ci teg nag moom sëriñ bi daal ne waaye li ma lay wax daal mooy li gën a wér daal am na daal moom ak lu mën xew lu munta ñàkk la faaw war am ndax nag mooy njariñ li dëgg moom te mooy la ngay jàng moo xam dal na lool walla gaaw na wala lu mën a xew gannaaw boo sàmmonte ak tey ba noppi faw moom teewlu gi moom ak settantal gi sa xol mënut a moom ndax boo ko defut li ngay jàng mën nga cee bañ a jariñu teewlu gi moom loolu nag boo gisee day mel da nga gisaal ne kon sëñ bi gën naa dëgëral ne kon jàng ko njàng mu teey mu dal moo ëpp solo jàng lu bari te ànd ak teewlu ànd teel ak dal ndax teey gi nag ak dal gi ci la nit ki gën a mën a amee nag teewlu ci xolam ak xelam dëgg-dëgg mu ne waaye teewut dëppoo nañ ci ne yonente bi alayhi salaam it nag ñaar yëpp def na ko am na dëgg la li gën a bari mooy danaan jàng-njàng mu teey mu dal mu dal lool sax waaye teewut tam xamees na def na ci ay barab yooyu jàng na njàng mu gaaw moo xam lam jàng daf mel mu bari moo ko ci gënoon kon ñaar yëpp itam sunna la soxna yonent bi sallallahu alayhi wa def na ko mu teg ci itam ne alxuraan it xamal ne wàccuwaayam ak daayoom tax ba ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alxuraan sun borom ji tabaraka taala ba noppi te di ko jàngal ñeneen wala di ko jàngal keneen te yàlla tax loolu itam ba tey la way ab hadis la yonent bi alayhi salatu wasalam moo wax ne ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba noppi di ko jàngale ki gën ci yéen mu wax ne itam mokkal alxuraan nag xamal ne lu kawe la lu rëy la lu baax la lu bari yiw la ak tuyaaba lu munta ñàkk la waaye benn jullit bu nekk du farata ci yow li ñu tuddee fardu kifaaya la te mooy bu amee ci jullit ñi daal gox bu ne ci jullit ñi bu fa amee mbooloo mu doy moo xam ne mokkal nañ ko mokkalin wu rafet ñooña danañ mën a yóbbaale ña ca des buñ ko mokkul tam mën a wéeru ca ñooña luñ ca soxla ñooña mën leen ko lijjantil fardu kifaaya la waaye du force ci ne bépp jullit bu mën a doon daa war a ma ko alxuraan jëpp loolu du force alxuraan jëpp lenn moo ci luy force loo xam ne képp ku dib jullit da nga ko war a mokkal amul nga amul dara moom te mooy fatiha suratul fatiha moom bépp jullit bu mën a doon muy góor muy jigéen ak lu mën a xew faaw da nga ko war a mokkal waaye lu ko weesu nag fardu kifaaya la waaye nag loolu du du doonul ne dañ koy dégg noon rek jàpp ne kon lu ñu woyee fal la déedéet fardu kifaaya woyofut woyofut ñu bari ci nit dañoo jàpp ne fardu kifaaya moom bu ko waxee rek mooy mbir mi woyof na te xamuñ ne léeg-léeg fardu kifaaya léeg-léeg mu metti lool ndax mooy lii mu ci teg ne saa yoo xamee na nag amuñ ca gox bañ nekk mbooloo mu ko mokkal ba man koo wutu man caa wuutu ña ca des waa gox bépp ay maase am bàkkar ñëpp ay maase am bàkkar fardu kifaaya dafa compliqué fardu ayn li moom sa jëfi bopp la boo ko defut bàkkar bi ci yow kese la yem amul yoonu keneen nekku ci def na koom defu ko yàlla wàllu boppam la fardu kifaaya nag ñàkk koo def ak nit ki léeg-léeg ngir na daa bokk ca ña ko man ña ca war a wuutu ña ca des bu ko defut bàkkaar bi dootu yem ci moom waaye ñëpp la maase wàlla ndoo benn yoon loolu tax lu diis la mu ne itam liñ soxla ci mbooloo war a am mbooloo mu ko mokkal mu koy saytu mooy ndax alxuraan xam nga dafa bokk ci sart yi ñu koy saxale liñ ñu tudde tawaatur te mooy alquran yonent bi alei salatu yàlla doon wàcce ci moom wàcceen wu yéeme waaye bi mu wàccee ci moom ba noppi itam bépp aaye boo gis ci alquran rek mbooloo ñoo koy jëlee ci yonent bi alei salatu mbooloo ñoo koy jëlee ci moom ñeneen ñu toxale ko noonu ba ni alquran ji dajee nii doon kamil bii ñu jàkkaar lool ba fi yonente bi alei satu salam nekkee ba suñ jonni tey jamono ju ne mbooloo ñoo ko mokkal mokkalal ko mbooloo jamono ju ne wala nga ne jamono ju nekk sax mbooloo ko mokkal moo xam ne mbooloo mooma da cay bari ñoo xam ne par kenn da nga ciy jël kenn mu mbokkalaata ko mbooloo mooy li am suñ suñ daara yi suñ daara boo ci gis ci daara la jógee daara joojee genn kilifaa ko yoroon mokkalal ca mbooloo alxuraan mbooloo mooma jóge fa amaat ca seen biir ñu ci jóge ñoom dañoo dem waat ay daara kenn ci ñoom demaat mokkal alxuraan ay mbooloo ñeneen jógewaat ci moom defaat noonu muy wéy di lawlaw yi ba yegg si suñ jamono ji wéyu googu muy wéy nag di lawlaw yi ci mbooloo di ko jëlee ci mbooloo mbooloo di ko jëlee ci mbooloo ba mu yegg si loolu daa munta ñàkk ci alxuraan daa war a bokk na ci liy tax ñu am firnde ju wér ci xam ne lu ci nekk lu wér la ndax bu doon lu kenn ak ñaar dong di mokkal di ko tari di ko nettali manees naa wax ne xaj ne diw daa juum wala diw daa fàtte dara waaye lu mbooloo di nettaleendoo jamono june nga xam ne jamono june ay junni junni junni junni nit ñoo mokkal alxuraan ay junni junni junni di ko jëlee ci ñoom muy wéy di dem day gën di yokk suñ jamono jii ñu toll ku xool ni yëf yi demee jàpp naa ne nit ñi léegi dañu lii mokkal alxuraan daa gën a bari jàpp naa ko dëkk ya nga xam ne ci cosaan boo ñëwee Sénégal rek dañoo aadoo woon moom di fonk ma ko alxuraan ba léegi boo demee ña nga ca nañ nekkoon ba tey daa yokk waaye dara ñu ko ci waaye ba ci barab yi nga xam ne sax xaj na ay at ci gannaaw yombu fi woon lool da ngay gis ne léegi daf fee comme Dakaaru gii rek léegi moom macha allah gone yi ngay gis ñu juddoo fi yaroo fi lépp fi mokkal alxuraan mokkal gu rafet kenn xamul ñu toll kenn xamul nu mu toll loolu it lu yéeme la loo xam ne day wane rek sun borom kiimtaanam ak kattanam ak man-manam ak ay waxam ni mu ndax li mu waxoon ne alxuraan moom moo ko moo ko warlu sàmm ko ba sàmmal ko boppam loolu moom da koy firndeel bu baax a baax ndax jamono ju ne mbooloo di ko gën di mokkal waxtu wu nekk ci anam gu yéeme gone yoo xam ne sax juróom la ñu toll wala lu ko yées mokkal alxuraan mu ne jàngale alxuraan itam lu rëy la ndax yonente bi alei salatu salaam moo wax ne ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alxuraan te di ko jàngale kon jàngale ko lu rëy la mu ne waaye jàngale ko itam bul jàpp ne rek daa war a doon jàngale ko ngir yàlla rek waaye ba ci jàngale ko di fayu sax mën naa ne dagan na loolu nag bokk na sax sëriñ bi di ko daa doonoon masala boo xam ne coow lu bari da ci amoon ci borom xam-xam yi am ñu jàpp ne jàngale alxuraan di fayu dëgganut ndax wax yàlla la ñëpp dañ cee war a jot wax ci ay wax yu bari waaye mu ne la déedéet li gën a wér li imam malik radiallahu anhu wax te mooy alquran dagan na nga di ko jàngale di ko fay di fayeeku dagan na ci kaw rek na nga jàngale ak na ngay fayeekoo na tege ci yoon loolu daa mooy ci am solo waaye bu tegee ci yoon jàngale di fayeeku dagan na te mooy comme lii am ci sun dëkk bii daara internat yi ubbi sa daara jàngale alquran doomi julli ñu lay fay loolu dagan na ci kaw rek sart yee ci war a am na ca am te mooy li ngay fayeeku na leer li ngay jàngale a tege ci yoon li ngay sartanteeg nit ñi na nga koy def ñoom ñuy def li ñu sartanteeg yow bu loolu amee loolu lu dagan la lu mën a nekk la ndax imam malik itam radiallahu anhu lii mu waxoon ne dagan na du waxi boppam waaye moom it da koo jëlee ci waxi yonente bi alei salatu salaam euh, dafa wax ne li li gëna yey lo leen di jël lo leen di jële ak payor moy téereb yalla bi lolu kon moy firndel ne moy firndel ne jàngale alxuraan fayeeku dagan na ak nuñ ko mëna def mo xam da nga naan sama dom ji dama bëgg mu mokkal xaju suuf bi ñaata laa lay fay nga na nangam ngeen fayante ko mu jangal la ko ba mokkal wala yu mel non yoy yep man na ko def ci anam ay anam yu wutal man na nek wala ni ñu koy defee di fay par weer rek lu mën a doon léegi mu ne bokk na ci li tax it nag loolu dagan mooy ndax nag bu fekkoon ne dañoo bëgg di wéy di ko jàngale ngir yàlla rek dana dem ba jamono bu njeexee jafe-jafe mën naa am ndax mën nañoo tollu foofu ñi koy mën a jàngale ngir yàlla dootu yombu boobaa kon mooy sànkute alxuraan lay mën a jur day mën a boobaa ñu koy mokkal dootu bari loolu jafe-jafe la musiba la kon moo tax euh, fayeeku gi ci jàngale ko dagan loolu mooy comme ni ñu ko gisee suñ jamono ji rek xam nañ ne suñ mag ñi bu bu rek ay ñaar fukki at ci gannaaw rek boo demee Touba wala ci dëkk yu bari daara yi nga fa fekk xamuñ fayeeku sax alxuraan xamuñ ko liñ xam mooy da ngay jàng alxuraan ba mokkal ko samp sa daara di jàngal doomi julli ñu ngir yàlla ñu lay jox seeni doom nga leen jàngal te yàlla rek tax léeg-léeg boo ca dee am dara loo cay bénéficié wu ci luy niru alal wala dara léeg-léeg daanaka du weesu lool boo xoolee sa dëgg-dëgg day mel ne daanaka jëriñoo ci ndax yelwaan meñ yelwaan loo gën yaag yooyu dara waralu ko lu weesu ngir ñoo am luñ dund rek loolu dong koy tax ndax bu dee yow suñ daara bi da ngay yow jàngale amoo benn temps booy def pour mën a defi la moom da xaju ci dafa mënta nekk jàngam alxuraan moom moo gën a metti njàngale école yi téeméeri junni yan xaju ñu bokk sax ndax 24 heures yépp man ngaa wax ne daanaka doo noppaloo wala li ngay noppalu lu néew a néew la dangay jàngale njël ba ngay jàngale njël booba jàngalekat yi ñoom ña ngay nelaw wala ña ngay nekk ci la yeen xëy jàngale suba cuuy ba digg ba cëg ngoon nga gontaat waxtu woo ña jàngal ca ñu bari jàngale jiwuñ ñoom marax nga jàngale waat waxtu woo nit ñëpp a ngay noppalu daanaka yow amu fenn fay kon donga bi la muy xëy dem di ko yalwaani ay suukara ki nangam sangam andi loola buñ noppee moom la waa daara ji dundewaat yow siñ daara bi ci waa daara ji nga bokk ab sëñ daara daanaka ab donga lay doon rek moo waa daara jeeg ñëpp bokk lu ñu dundee mook ko mook ak ñëpp daara daara moom daara rek lay doon ñi fi nekk ñëpp ay donga la ñu doon kooka la wut ngir lu lu njabot jeek donga yeek ñu fi nek ñëpp mëna jariño rek la kon bo xoy da ngay gis ne jariño wu ci mom dara ci matériel lu ñu mën wax amut wu ci dara waye la def lepp yalla donga tamu di ko def diko ko liggéeyal yàlla waaye jamono dana dem dem ba soppiku ba mel no xamne ne dootu yomb xam nga ne ndakaaru gi ku fi ñewon legi bëgg ubbi daara da nga jàngale ngir dal te yalla tax te yow fi nga dëkk da nga koy luyee da ngay fay ndox da ngay def li da ngay def la du soti lolou nak kon faw dana am lo sartante ña lay joxal seen dom ngeen jangal kon bu ko defee foofa foofu ngay dégg ne daganal giñ daganal fayeku lu am la lu wér la loo xam lu yanu maanaa la lu yanu maanaa la mu wax ne alquran itam sopp nañ nit ki buñ ko joxe kamil wala bu ko yoree mu mu fóon ko ngir wane lan ngir wane fonk gum fonk alquran def gi mu ko def ci boppam loolu rek lay wane fóon gi loolu ba tey ci liñ gisoon suñ kilifa yi di ko def la nga xam ne foo leen joxee kaamil la njëkk a def mooy daañu ko jël fóon ko daal di ubbi xool jàng ci dara doog a teg lu kaamil yi bari bari rek daañu ko def faaw ñu def ko mu ne niki noonu itam teg ko ci kaw toogu maanaam teg ko ci kaw lu kawe la bëgg wax teg ko ci lu kawe loolu itam luñ sopp la teg ko ci lu kawe luñ sopp la teg alxuraan ci fu suufe loolu gënut gënut teg ko ci lu suufe gënut nikinoon ki noonu itam di ko di ko di neexal ak xetam te mooy nga di ko lat kolej di ko sotti parfum loolu luñ sopp la lii itam moom sëriñ bi radiallahu anhu xam nañ ne ni ko jëfee bu amee ku ko ni jëfee itam yombul luñ ko dégg Sëriñ Tuubaa ay lalam moom daawu ci toog daawu ci tëdd wala néew na lool waaye li daan def mooy alxuraan da ciy teg ak téere xam-xam yi ci yi mu yor ci la koy teg ci kaw lal la koy teg waxtu wu nekk di jël la ko di ci sotti di ci sotti kon loolu moo aw doxinam la woon mu ne am na yoo xam ne nag dañ koy moytul dañ koy tare te mooy jël alxuraan def ko ngeganaay loolu daa xaram moytu ko loolu nag bu la koy wax tey mën ngaa jaaxle loolu moom nu mën a nekke waaye da ngay dellu ci contexte ba mu téléphone téere bi booba loolu daa amoon ci réew mii nit ñi kàng yi dañ daan jongante ci alxuraan ak di ci puukarante wu ba yegg ci ëppal ëppël tàmbali bi lépp fonk alxuraan ak jox ko gëdd rek la waaye mbir mu mën a doon bu ko tënkul fi ma reyam day mujj ëpp mujj nañ fonk geeg jox gëdd geeg bëgg gi yóbbu leen ñu ci jongante jongante day mujj yóbbu la léeg-léeg ci nga mujj woyofal mbir mi dootu rëy ci yow moo tax ba mujj yóbbu nit ñi ci ñu daan def yooyu ñuy def ba yegg ci nit koo xam ne bu yoroon kaamil fii di jàngal xoraan bu jàngee ba noppi bu bëggee nelaw fii wala dara koy jeg teg mën na cee teg boppam boo ko waxee mën la ci kaw kaamil rek la maanaam ngir yëg boppam ci mokkal gi mokkal xoraan ci kaw kaamil la loolu wérut du kamil ci kaw kaamil bopp ci kaw kaamil la léegi loolu nag mu ne la loolu dañ koy tere dafa xaram ndax yow alxuraan la gën téeméeri junni yoon tëlloo leen sax yow yonente bi alayhi salaatu salaam yéen bokk doon doomu aadama te moo la gën téeméeri junni yoon yemoo leen ci dara te xamal ne sëriñ boo xam na ko ci geneen xasida wenn araf ci alxuraan moo gën yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraan wooyu fut wenn araf ci alxuraan moo gën yonente bi alayhi salaatu salaam léegi yow nga bëgg a jël sa bopp bii nga xam ne lu nekk ngi ci di ko teg ci kaw alxuraan loolu yéenuwul mana kon mu ne loolu dafa xaram dañ koy tere ak lépp lu yor àtte boobu rek nag loolu moom buñ demee ba suñ jamono mën naa am xamatuñ ji waaye mën nañoo am yu ñuy def yoo xam ne mën naa yor àtte bi te du ko sori mën na koo yor mu ne niki noonu itam teg dara ci kaw alxuraan dañ ko koy dañ koy tere dañ koy tere ba ci téereb xam-xam sax nga jël ko teg ko ci kaw alxuraan dañ koy tere comme Masaalikul Jinaan bii ma yor jël ko teg ko ci kaw kaamil bi loolu dañ koy tere alxuraan su teg ci kawam dara loolu nag lu mat a waggar la ndax nit ñi léegi surtout sama mbokk jànkat yi bari na ñoo xam ne yooyu dañ koy dañ koy sabantal dañ koy sabantal te ku yaroo ci xadarab Cheikhul Xadim nag moom loolu wurta bokk ci li ngay sabantal teg téeréb xam-xam wala téeréb xadis sax te bu ñu waxee xadis kon waxee noppi laa neen moom teg ko ci kaw alxuraan dañ koy tere loolu jaaduwut ndax alxuraan wax yàlla wax yàlla la loolu tolluwut ak dara dara wur sama na wur ko mën a féete kaw ni ki noonu mu ne ba ci diisale ko ab bant sax dañ koy tere te mooy lu mel ne yaa ngi jàng léegi jël bëgg lu la jàpp lu la yombal rek man ngaa sax bañ a wax bant waaj na booba bant gën a yomb waaye jamono jii nga ne ma jël sama téléphone bi teg ko ci kawam déedéet loolu jaaduwut alquran dara du tek ci dara du tege ci kaw dara wur tege ci kaw mune wala lanen lu dul lol sax lanen lu dul lol nak mom mo dugal portable ak lu jamono andi rek mune niki non yi talal sa tank mu jëm ci alquran lol itam dañ koy tere tek kamil ni talal sa tank mu jëm ci dañ koy tere ndax lolou batay du teggin ci alquran niki non itam wékkoo ko ko dañ koy tere wékkoo ko alxuraan alquran wékkoo ko dañ koy tere maanaam lu mel ne comme lii am léeg-léeg rek jël jël yor sab saag wala dara wala jaafura yi ñu daan def wala ba ci sun maxtu yi nga jël sa maxtu jël sa kamil bu ndaw dugal ci biir loolu ba tey dañ koy tere ndax yooyu yëpp daa mën a yóbboo ci jëflanteeg alxuraan noo xam ne yellut ci moom ndax man nga ko wékkoo da ngay dox di dem rek man nga dugg ci barab bu sobe man nga jaar ci sobe man nga def lu ne ak yooyu yep bu yàggee nit ki ak miin la koy jural loo xam ne da koy yóbbu ci sabantal mbir mi ba yàgg ci jëflanteeg moom ci noo xam ne jaaduwutoon ci moom jëflanteeg moom mu ne kon yooyu yëpp li ma li ci digal mooy baaxut daganut dañ koy tere nang ko moytu boo bëggee mucc mu ne ni ki noonu itam warmaal guñu ñu warmaal alxuraan tax na ba borom xam-xam yi dañuy wax ne alquran bu koy bind dañoo war a rafetal mbind mi dañ ko war rafetal maanaam boo dee doogu ci ne da ngay bindu kaamil wala dangay ngay bind ab xisib ci alxuraan wala nangam yi isib wala nangam góorgóorlu ba sa na rafet bu sa mbind ñaawee bàyyee ko ñu seenu mbind rafet ñu bind ko ndax alxuraan daa màgg te rafet ba dañ ko war a bind bind mu rafet daa war a rafet loolu it mooy li waraloon ñu gis Sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu ak ñi jógee ci ab yaram ñëpp niñ fonke woon bind ba ba léegi sax loolu ba léegi réew mépp dañ ko dañ leen koy seereel ba léegi réew mépp foo dem ci Sénégal am na noo xam ne boo bindee rek ñu ne la yow xanaa bawol nga jóge Touba nga jógee wala Njaaréem ndax xamees na leen ci mën a bind xamees na leen bu baax ci mën a bind daan daan naa sax gone goo xam ne booba ndaw la dem ci daara ju siiw ci Sénégal daara ju mag booba di jàng doon ndaw xaaju ko mokkal sax booba waaye buy bind sax ay mag ñu bari ñooy ñëw taxaw di ko yéem mbind mi ngir ne dafa rafet dafa rafet loxo loolu ci yarinu sëriñ bi la bokkoon fonk loolu itam tax mu daan def ku rafet mbind ku ne dala daan bind loo kaamil Sëriñ Tuubaa loolu ci aadam la woon ku indi ci moom bind wala mu dégg ci yow rafetu mbind dan la bind loo kaamil suñ mbokki naari gànnaar yi am nañ ci ay xissa yu bari ñoo xam ne day jël nit am na cheikh mohamad abdullah ibnu ubayd rahman alawi nettal na ci nafahat miskiya koo xam ne sëñ bi da koo jël nekk moom am at ci waa banu daymaan la bokk di ko bind loo ab kaamil di ko bind loo ay kaamil sax lu bari ak yeneen téere yu ni mel ba at ma jeex ba mu koy yeewi muy ñibbi lam ko jox moom mën na cee dund lu ëpp at lu ne la ko dajaleel ci xeetu alal jox ko ko jox ko ñetti gileem jox ko alal ju jeex ay yéreeg lu ne la jox ko ko kon ngir fonk rek ñu rafetal mbind mi ñu rafetal ko loolu nak lu mata baye xel la ndax nak sun daara yi bu jëkk dañu fonkon di jangalo gone yi bind ba bo tole jang alcorane ba xawa a sori tuti dañ lay bolé ci sa programme sa yo jangé bind ba tari sa wet ba nopi faw sa bindu tey da ngay dem bind ko ci àlluwa da ngay dem bind ko ci àlluwa bam jeex ñew wané ko ñu xol boba liñ ci jublu dara ci ngir defar sa loxo ak di jox kaamilu seen diw ngir nga di ko roy loolu juróon ci ñun sax ci Touba culture bu am solo nga xam ne Touba tey boo yaroo ci daara yi te xam mbind ku mbind rek nga mën a xam ne kii ci daara yi sàngam la jógee da koy mën a xam da mën a xam ne kii daara yi Christian yi bu la jógee wala ci daara ju jóge ci Christian yi bu la nga mën a xam ne kii ci daara yi mbusoo bi la jógee wala ci daara jóge ci daara yi bi la jógee wala yu mel noonu da nga koy xam da ngay xam ne bu nit ki bindee rek nga xam kii fan la jóge ci daara jan la jóge da koy xam léegi nag malheureusement euh, sun daara alxuraan yu bees yii di am muy internat yi loolu ñi ci jàngale war nañ cee farluwaat ndax dañuy seetlu ne gone yi fonkatuñ bind fonkatuñ ko te bind nag ci la bokk bind daf cee bokk borom xam dañ daan naan mbind mu taaru taar la ci borom xam-xam taar la ci borom xam-xam ndax nit dana xam-xam lool ba nga yéem ko waaye bu bindee rek doo ko bëgg a xool loolu day bari lu muy yàq ci lu muy dindi ci yow ci moom moo tax rafet mbind def cee bokk loolu itam ñiy jàngale ci internat yi war nañ ko joxaat yitte ci di bindloo gone yi ak di leen loo ci mag ñi fi bindoon ay kaamil ñu rafet mbind ñu leen di roy ngir mën a bind mbind mu rafet mu ne niki noonu itam dañuy sopp alxuraan buñ ñu koy bind ñu bind ko mbind mu leer mbind mu fés la ñuy sopp mbind mu leer mu fés soppeef na itam buñ koy bind mbind mi bu mu am na wér na wér cëng te wow koŋ bu mu am benn jaxase ba lu ca bokk di ca dugg wala dara buñ ko jaxaseeg dara nañ ko bind mbind mu wow koŋ te yitam mbind mi itam na leer buñ ko sewal na doon mbind mu fés ndax saa yu mbind mi sewee rek man naa yóbboo ci ay lënt lënt mën na caa yóbboo wala ay yàq ak yu ni mel moo tax mbind mi na leer te mu nekk mbind mu sew daal ne moo taxit borom xam-xam yegg nañ ci sax ba di wax ne këyit wu ndaw sax bind ci alxuraan bind ci kaamil dañ ko sib këyit wu ndaw maanaam bind kaamil boo xam ne këyit wii nga bind misaal këyit wii nii yi ñuy binde nga jël ko xaaj ko ci digg bi bind ko kaamil wala nga xaaj ko xaajaat ko këyit wu ndaw dañuy sib ko ci bind kaamil ndax rafetut ci màggaayu alxuraan ñu di ko bind ci lu tuuti loolu rafetut ci moom waaye itam mën naa indi yu baree bari itam mbind moo xam ne mën naa bañ a mel na war a mel wala dagg ay ay baat wala yu ni mel mën na koo indi mu ne ni ku noonu itam euh, fonk masque yi ak la ca aju mu ne masque yi itam xamal ne doonutoon nag cosaan ci alxuraan bi fi yonent bi di am di nekk alxuraan kenn masu ko kenn tombu waaye masque yeeg tomb yi dañ ko sos gannaaw bi gannaaw yonent bi aleyhi salaatu def ko ci lu tax ñu def ko ci mooy ngir gën a ñoŋal alxuraan ci yàq loolu rek lañ jubloon gën a ñoŋal alxuraan ci yàq loolu rek lañ ndax bi ñu demee ba lislaam yaatu yeneen i gox di dugg ci lislaam ñu doon tooni arab di ci dugg arab yi ñoom ci seen jamono bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk amuñ jafe-jafe ci jàng alxuraan mbind mi yax boobu ñuy bind nga xam ne amul tomb amul maas dañ koy xam ndax seen làkk la dañ koo xam amuñ ci benn jafe-jafe waaye biñ demee ba nag ñi duti arab di dugg làkk wi du seenu làkk ñoom day indi jafe-jafe tax ñu gis ñoo xam ne dañuy jàng ab aaya ci alxuraan jànge ko noo xam ne li ñuy wax musiba la moom kenn du ko nettali musiba la léegi nag loola ca lañ gisee ab xissa yu gudd la waaye ca gisee ne kat fi ne moom farata ju far joo xam ne mënut a ñàkk ñu binde mbind mi noo xam ne dana tax ba gan ñii dugg ci lislaam man koo jàng-njàng mu leer ndax nag ñoo ñëpp a yam àq ci lislaam ndax lislaam moom amul démb laa fi ñëw ak laa fi ñëw àq ci mën a jàngal xuraan man koo mokkal àq ñëpp la kadib arab ak këdul arab ñëpp ci am ñëpp ko war am kon moo tax ngir gam garder leen seen àq jooju faw mënta ñàkk ñu bind ko bindin wax daañu ko mën a xam daal di indi tomb yi indi maas ku ñu wax euh, Nasr ibn Asim ca jamonoy Xajaaj ibn Yusuf moom la ñu wax ne moom la ñu joxoon digal mu mu tomb tomb alxuraan tomb yi moo ko def moo def tomb yi waaye alxuraan wàcceeliwutoon noonu masque yeeg yooyu itam noonu ca abul aswad addu ali kon lo lépp rek day wane ne liggéey bi nga xam ne moom la saxaaba yeeg taabiun yi ak ñi ci seen gannaaw def ngir liggéeyal alxuraan ngir ñoŋal ko ba dara ci yàq ci nekk mu wax ne itam jële nañ ci imam malik radiallahu anhu mu wax ne alxuraan itam daf koy ay xaaj dañ koy sib daf koy ay xaaj te loolu mooy lu mel ne ñu jox la kaamil bii yow ñu jox la ko may la ko nga dem jukki ko niñ koy defee ñun ci daara ja rek nga dem jukki ko loolu dañ koy sib ndax alquran sun borom dafa xam daf koo doon daf koo daf koo dajale inna alayna jamaahu wa qur'ana da koo dajale gannaaw daf koo dajale nag bul dem ñëw yow wëlbati ñëw yow di ko jukki ko teqale mas naa koo laaj nag benn borom xam-xam ca Mauritanie mu ne ma léegi kon bu dee yi nga xam ne dañ koo dañ ko def ay xaaj di la jaay mu ne boobaa moom loolu jëfi keneen la yow soo nekk ci kaamil bi nga xam ne ngaa dem jënd ko ñu xaaj ko par fukki juróom fukki si fukk wala par ñaar wala par fukk wala par juróom wala par ñaar sax boobu moom yow du jëf jëfi keneen la kon amul jafe-jafe ci yow mu ne ci mujj gi alxuraan daal li ci aju ci ak màggaayam ak dayoom ak tolluwaayam ak lim laaj ci ay teggin ak worma ak jox yitte ak yëg dayoom bari na bari waay goo xam ne buñ bëggee dugg ci di ko lim lépp ak wax la ca aajo la mu aajoo wax lépp moom danañ yóbbu ci foo xam ne duñ fa du yegg fa dana sax jafe ci ñun ndax da danañ yóbbu ci guddal gu ëpp goo xam ne boo moytu téere bi lépp ci loolu la ñu far wax te li ñu taxoon a jóg mooy ngir wan rek dayoom ak tolluwaayam ak wan la ne bokk na ci yi ëpp solo loo war di dundale sa waxtu ngir jariñ ci tey jariñ ci ëllëg kon mu daal di wax ne kon foofu la yemale incha allahu taala euh, bunt boobu daal di jublu nag ci way li nga xam ne moo ko tax a jóg te mooy tasawuf ak mooy lan incha allahu taala bu subaak jàmm daañu ci dugg incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw dafa wax ne alxuraan yi ñuy def nga xam da nga koy téléchargé sa téléphone léegi ndax léegi loolu nu muy demee ak àtteem loolu moom borom xam-xam yi dañ ci wuute ci jamono ndax xam nga loolu lu bees la bi mu amee yàggut am na ci borom xam-xam yoo xam ne dañuy jàpp ne kaamil bi nga def ci sa téléphone wala sa iPad wala lu mën a doon yorul atteb kaamil bii yoru ko ñoom na la jàpp moo tax boo ko ubbi woon ba téye ko itam yor ko jàkkaarloog mbind mi itam sañ ngaa bañ a yor njàpp ba nopp yor ko am ñu wax la neen ñoo xam dañoo wax ne déedéet bu fekkee ne daal danga tëj téléphone bi wala boog application bi kaamil bi nekk da ko koo tëj yaa ngi ci faneen boobaa yoru téléphone moom yorul atteb kaamil waaye saa yoo ubbee nag kaamil bi moom ba janloog mbind mi boobaa léegi atteb kaamil bii la yor moog bii nga yor ñoo bokkaat maanaam ni nga xamee ne sañoo ñàkk yorum jàpp ba noppi di laal bii booba it saa yoo xasee ubba jàkkaarloo mbind mi sañoo too ñàkk yorum jàpp ba di ko laal dugal ko ci wan ak waxi nopp mënta nekk man nag wax jooju laa gën a gëm jooj mujj jooju loolu laa gën a gëm saa yoo xamee ne saa yoo xamee ne ubbi nga daal kaamil bi ba jànloog mbind mi atteb kaamilu kayit bii la yor boo yorul njàpp sañu ko laal dugal ko ci wan ak waxi waaye saa yoo ko xasee tëj booba amatul jafe-jafe téléphone moom mën na dugg ci wanag man nga koo ci lu nga yor njàpp ndax lu tax mooy ndax kaamil bi la ko borom xam-xam benn bi waxee mooy ne kaamil bi daf cee nekk maanaam dafa am nekkin wu ci nekk daal ci buñ ko mën a waxee noonu daf ci nekk bil quwa waaye nekku ci bil fi'l maanaam nekku ci nekkinu comme ni nga koy gisee fii waaye nag nekk na ci nekkinu nga mën koo jëfandikoo kon nag bu boobaa saa yoo ko ubbee ba janloog moom jeex na atteb kaamilu kayit bi rek la yor am na yu yeneen yëf yu ci gën a xóot sax yu ci nekk waaye loolu doy na ci maanaam lu mën a xew boo xasee ubbi daal kamil nga yor luñ lay tare ci yorub kaamil dañ la ko ciy tare luñ la ci digal dañ la ko ciy ndax yow li nga soxla ci kaamil yaa ngi ko ciy def kaamil li nga soxla mooy tiim di jàng loolu ndax lu ci mat a bàyyi xel mooy buñ ko bëggee tënk ci kaamilu kayit bi dañuy juum ndax faaw ñu bàyyi xel ne kaamilu kayit bii ñun kaamilu kaamilu électronique bii lu bees la ci ñun ndax ñi ngi doon xam kaamil nangami at di ko dog di xam bu yàggul waaye nañ xam ne kaamilu kayit bii itam ci ñun lay lu yàgg waaye ca saxaaba yaag ña fekkoon yonent bi aleyhi salaam lu bees la ci ñoom ndax jamono jooje kenn dawul bind alxuraan ci kayit alxuraan gannaaw bi lañ ko tàmbalee bind ci kayit booba alxuraan ñu ngi ko doon bind ci ay yax ak ay der ak yu mel noonu ci lañ doon bind alxuraan ndax booba kayit amu amuñ kayit ñoom booba kon moo tax buñ jàpp ne lii rek kay kamil déedéet déedéet alxuraan ñoom alxuraan la mais fi ñu koy bind moom day soppiku ndax jamono koy indi jamono koy indi jamono yonent bi sallallahu alayhi wa ay yax ay yaxi giléem ak yu mel noonu lu mel ne faaru giléem nga xam nga day yaatu ak xeeti yax yu mel noonu lañuy jël xoos koo xoos ba mu rafet bara tax ci li ñu bind li ñu bind ci alxuraan wala nga wut ay der xoos ko xoos ko ba kawar ak lépp dañ ba mu tax ñu di ci bind yooyu lañ ñaan dajale der yooyu lañ daan dajale nga xam ne boo ci dajalee la nga dajal say der ba mu mat loolu mooy sab kaamil noonu lañ daan def gannaaw gi lañ dem ba kayit am ñuy bind di bind ci kon mooy alxuraan ji moom fi ñu koy bind day soppeeku waaye téewut alxuraan ji alxuraan ji la bañ koy bind ca der yaag ak yaxya ya daganut kuy rutum jàpp di ko laal daganut ñu koy dugal ci wanag bi mu demee ba ñëw ci kayit noonu bu demee ba nëkk ci téléphone yi tam buñ ko xasee ubbi ba jànloog moom benn la jeex na sëñatoo ci loolu sëñut ci alxuraan hmm. jigéen waaw euh, jigéen moom bu tollee ci baax dañ koy tere muy laal alquran dañ koy tere tere dañ koy tere muy laal alquran dañ koy tere euh, waaye nag li ñu ko terewul moom mooy mu tare ko ci làmmiñam tare gi ci làmmiñam loolu mayees nag ko tare gi ci làmmiñam tare gi ci làmmiñam nag ndax borom xam-xam dañuy wax ne gannaaw jigéen li ànd ak ngàntam loolu dafa bari weeru wu jot ñaareel dana ko gaar bu fekkonte ne bii ne saa yoo ko gaaree ñu ne ko dootoo tare alxuraan bu yàggee mën naa fëtt wala mu xaw a jaxasoo léegi bu ko defee nag jëmmi tari gi moom mayees na ko ko tari waaye jëmmi laal moom des koy tere jëmmi laal gi des koy tere des koy tere mhm. ñaar yëpp bari tuyaaba kay lool moom kay ku ko man da ngay ci guddi gi jàng ci bëccëg gi rek ku ko man li ngay jàng ci alxuraan ci koor da nga koy seddale wala danga koy def ay xaaj dangay fexe ba jàng ci guddi gi jàng ci bëccëg gi ndax waxtu ci nekk am na ngëneelu boppam lu bare bare bare waxtu wu ci nekk am na ngëneelu boppam jàng ci ñu bari ci nit ciy juum bëccëg gi la fonk ko jàng alxuraan waaye guddi gi moom ab aaya duñ ko jàng loolu njuumte la guddi koor daa am wàccuwaay guddi koor yamut ak guddi yi du koor moo tax te koor it day weeru alxuraan moom weeru alxuraan la alxuraan moom koor da ko moom moo tax eh, ni ngay jàng alxuraan ci bëccëgu koor boo dogee itam bu mu tee nga jàng alxuraan ci guddi koor mhm. Mhm. ah ah kay waaw déet kooku moom daañu ko may mulaal ko kooku daañu ko may mu ko kooku moom ngir njàng mi kooku dañuy wax ne daañu ko may mu laal ko ah waaw waaw kooku dañu ko may mu ko ndax njàng mi mhm. waaw déggatuma baax de jege tuuti

gana li ñuy wax ne ci guddi koor dañu am ñu ñu goreel ci sawara léegi daa xamul ba xam ndax nu mu demee daal ndax dafa am ñoo xam dañoo dugg sawara ba noppi ñu leen cee génne ak ñi ñuy dugal àjjana dafa am ñoo xam dañoo dugg àjjana ba noppi wala déet déedéet sawara ak àjjana moom fi ne ay barab la yu toog di xaar yàlla waajal ba noppi ñuy xaar bu ci nekk ñu ci war a jëm yàlla na yàlla musal ci sawara moom te dugal ñu àjjana waaye xam nga mbirum suñu borom moom daa amul daa tënkuwut ci ci waxtu yàlla mbiram tënkuwut ci waxtu moom ñun doomu aadama nag ñun suñ bi daa tënku ci waxtu ñun dañoo am tey am suba am gannaaw suba am démb yàlla amul loolu moom temps yëpp a daje ci ci kanamam teewandoo benn yàlla yàlla amul démb amul tey amul suba moo tax ci dogalam ak li muy def ci nit kii li muy def ci moom day mel na lépp ci moom tey la daanaka rek ci ñun nag day soppi ko doon ci ñun démb wala tey wala ëllëg ñun ndax nañ bàyyi xel ne laata loolu sax yonent bi aleyhi salaam waxoon na ne ku nekk ci ñun bi mu nekk ci biiru waajuram wu jigéen ca fan yu jëkkam ya ba malaaka mi ñëw di def ci moom ruux la bindaale woon ci moom lii xew ci moom lépp ba bindaale ci moom ndax kuy texe wala kuy texee di la te booba ñëwagul àdduna sax bay bay daray xew ca biirum ndayam ca ñeent fukki fanam yu njëkk ca lañ ñëw bind loolu ci moom booba ñëwagul àdduna ba fiy def dara bay faatu ba dara xew te bindoon na lépp ci moom lii it ki nga xamante ne bii ne suñu borom goreel na ko ci sawara xam nga ku nekk ci ñun mën na cee bokk yàlla nañ ci bokk ñun ñëpp waaye man ko bañ a xam-xam nga man ko bañ a xam waaye bu ëllëg jotee moom ba nga xam ne yow gannaaw sa mbir daa tënku ciy waxtu bu ëllëg jotee ba sa wàllu jot da nga ci xam dara yàlla na yàlla boole ci ña ko ci ña ko yàlla defal hmm. waaye loolu doonul ne dafa am ñu dugg sawara ba nopp wala ñu dugg àjjana ba nopp déedéet déedéet kenn dugg gu fa ëllëg lay doon ëllëg lay doon ci ñun ci ñun ëllëg lay doon ci yàlla nag moom amul ëllëg ak tey lépp benn benn benn jamono la ci moom. kii dafay laaj ne. Mhm. maanaam njàng ñi jàng alxuraan nga xam ne njàngoom gumba lañ ko jàng mooy. nga xam ne buñ gisee téere yi duñ mën a jàng ak yooyu. Mhm. nee na loolu lan mooy seenu atte ñoom. nu leen nu leen lislaam gise daal nga xam ne dañuy jàng njàngum gumba njàngum gumba buñ gisoon saar yi mokkale duñ ko xam waaw li li li daal mooy ab jullit moom daa war a jàng ba fere ji li ñu tuddee ab ummi ab illettré ko doon ab jullit daa war a jàng ba fere ji daa war a jàng ba la gën a jaadu mokkal alxuraan wala mu mokkal ca am solo jàngi ci diineem ba xam li mënta ñàkk ci moom léegi nag bu dee na yàlla natt na nit ki ngir ay sababu lay mbir ba tax jàngu dara ba firut iji bu tiimee du mën a xam lim mu tiim waaye góorgóorlu na ba mokkal yenn saar boobaa lam def effort la loolu lu rëy la yàlla nag ko yàlla fay ndax def na def na lu am solo xaj na loolu la tolloo loolu la man boobaa moom loolu yàlla dana ko fay xaj na itam bu fekkee nag ñàkk a jàngam nga càggante waralu ko waaye xaj na ay sabab la yoo xam ne na loxom yàlla mën ko bañ a waaye ki li doy waar daal mooy ki nga xam ne moom fës ci ne dara moom ndax loolu am na am na koo xam ne moom jàngaluñ ko bañ ca tollee te moom it jéemut a def benn effort ci ngi jéem a xam dara Fatiha sax nangu ko jéem a def effort pour mokkal ko te pourtant mi ngi mokkal ay waay ak lu ne mi ngi koy mokkal te mokkaloon ko lu jàppan la ci moom lu jàppan la ci moom ndax euh, bu fekkee mënu koo liir it donte ne day diglu ku koy jàng mu di ko diglu ci moom di ko jàpp di ko toppandoo ba mokkal ko it boobaa loolu lu baax lay doon bu ko jullee ak julleem day wér laneen lu mu ci def itam day mën a wér xaj na yàq-yàq yu mel noonu moom suñu borom lu mu koy jégale ndax foofu la man manam toll yàlla du teg nit ki li man foofu la ko yemale alquran alquran day li ñuy suñ borom dafa wàcc ay wàcc yu bokkut daa jóge ci suñ borom tabaraka wa taala ñëw ci baytul izza baytul izza ci pays yàlla yi la jóge fa ñëw ci euh, asamaan su mujj si bi mu ñëwee ci asamaan su mujj si mooy ñëw googu alxuraan di nettali naan mi ngi ñi ngi ko wàcc ci guddi laylatul qadr mooy bi mu ñëwee ci baytul izza bi mu ñëwee ci asamaan su mujj si foofu nag la ko naa Jibril di jële di ko indil yonente bi alei salatu salaam diirub 23 ans mooy ñaar fukki at ñett yoo xam ne léeg-léeg mu jukki ab aaya wala ay aaya wala dara indil ko yonent bi aleyhi salaam jox ko ko léeg-léeg ay xew-xew a koy jiitu mu mel na luy tontu ca xew-xew yeeg di ca leeral léeg-léeg it dara du xew suñu borom jékki-jékki wàcc dara loolu it faaw ñu bàyyi xel ndax ni ñuy waxee ci wàllu li ñu tuddee sababu nuzul mooy yi waral wàcc yi day tax ba ñenn ñi jàpp ne alxuraan dafay ñëwoon rek ngir di ay xew-xew yu xew mu ci àddu déedéet. bari na ci alxuraan loo xam ne daa wàcc ci lu dul dara xew suñ borom a jubloo wax ak ñun rek wàcce dara ci yonent bi alayhi salaam ne ko nangam ak nangam ak nag bari na ay yoo xam ne moom am na ay xew-xew yu wàcc yu xew waaye yooya doonul ne moo waral alxuraan wàcc déedéet ndax xam naa damay bañ mu gudd waxtu Baye naa ñëw léegi waaye yooye doonul ne ñoo wàcc sabab yooyee doonul ne ñoo buñ delloo ci tawxid ak niñ koy jàngalee xam ne sabab yooyu doonu na ñoom ñoo tax alxuraan wàcc waaye wàccu alxuraan moom luy sotti la ba noppi lu jiitu loolu lépp sax di am lu jiitu loolu lépp di am